لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ala kulli xaal lu nga xam ne moom la mbokk sàkk woon taamu benn thème benn mawdu boo defee mu nekk thème boo xam ne dañ ciy fàttalante ci loo xamante ne dinañu jëriñ suñu wàllu diine euh, ma xalaatoon ci waxtaan ci wàllu koor lu njëkkoon ginnaaw bi mu am beneen mbir boo xam ne dama gis benn borom xam-xam di ci wax lim ci lim ci wax nekk lu am solo lool solo lool muy loo xam ne du lu ñu daanaka ñëpp la muy yan jumtuwaay la nit ki mën a jëfandikoo ngir am dund boo xam ne dund bu texe la dund bu dal la ci kaw suuf mu tuddee ko al wasaailu al mufida lil xayaati saida muy yu am njariñ la mën a jural nit dund boo xamante ne dund bu texe la dund bu dal la di Cheikh Abdourahman Saadi rahimahullah dund boo xam dund bu dal la loolu comme ni ma ko waxee ñëpp moom lañuy ñuy sàkk doomu aadama yëpp ku nekk ak ci anam bi nga koy bi nga koy fàggoo ku nekk ak ci ni ko foogee ak ku nekk ak ci ni ko déggee ñii di ko ut ci wàllu alal ci wàllu àdduna ci wàllu am-am di jéem a ut ak di sàkk fu ñu toll loolu nga xamante ni mooy dund boo am ñeneen ñoo xamante ne dañ koy sàkku ci seen ngëm-ngëm bi ñu gëm ñu mën jóg bëgg cee sukkandiku ngir fàggu mbir bu rëy boobu nga xam ne mooy dund boo xam dund bu dal la dund boo xam ne dund bu texe la kon doomu aadama yi ku nekk ci ñoom ak ni nga koy fàggoo ku nekk ci ñoom ak ni koy sàkkoo bokkale wuñ ko yàlla subhanahu wa taala ci nammelam ci coobareem moom moo sàkk mbindeef yi seen jub seen jub seen euh, destination fa nga xam ne fa la ngir ñu war faa dund nekk kaw suuf ndax yàlla subhanahu wa bi muy sàkk aadam dafa wax malaaka yi ne leen inni jaa'ilun fil ardi xalifa damay def ci kaw suuf koo xam ne moo fay wuutu mooy jiite dund ci kaw suuf nekkul xalifa moo fi wutu borom bi subhanahu wa waaye moom la fi yàlla subhanahu wa taala di wutal mu yore nguuru kaw suuf yore li ñu tuddee imaarul ard mooy dund kaw suuf moom moo ko yore ci loxoom lay nekk mooy dundal kaw suuf rôle boobu responsabilité boobu ci loxoom la ko yàlla di teg bu ko defee yàlla tàggatal ko lépp lu nekk ci kaw suuf mu mun koo jëfandikoo ngir taxawal loolu ci kaw suuf yàlla subhanahu wa bi mu sàkkee aadam mu dëkkal ko aljanna te foofu xëy na nekkuloon euh, jubluwaay bi nga xam ne moo taxoon yàlla subhanahu wa sàkk ko ci tàmbali ba xëy na mën na faa mujje waaye waru foon a njëkke fii la waroon njëkke ci kaw suuf bi ko yàlla subhanahu wa jaarale foofu am na lu bari loo xamante ni jànge nañ ko ci jaar-jaar bi aadama jaar muy jaar-jaar bi mu jaar aljanna laata muy wàcc ci kaw suuf bi ko fa yàlla subhanahu wa taala am na lu mu ko wax loo xam ni Euh, mooy firndeel ne kaw suuf bu ñu fi ñëwee fokk ñu am ay ay ay ay jafe-jafe ak ay torof torof ndax daf ko xamal na ko aljanna nécessité yi nga xam ne moom la nit ki di soxla mooy mbir yi nga xam ne moom la nit ki di gën a soxla ci dundam yooyu dañ ko ko garantiral foofu def na ko innaka la tadmau fiha wala tuha wa anna laka la inna laka a la tajua fiha wala taara wa annaka la tadmau fiha wala tadha def na ko boo dëkkee ci biir aljanna am na ñeenti mbir yoo xamante ne dinañ la ko garantiral ñenti mbir yooyu mooy doo xiif doo mar doo rafle doo ñàkk koo dëkk doomu aadama yi nga xamante ni mënu koo ñàkk ci dundam ci ci gën a am solo mooy ñenti mbir yooyu mooy lu muy lekk lu muy naan lu muy sol ak fu muy dëkk yàlla subhanahu wa taala xamal ko ci ñaari aaya yooyu ci sóoratu Taaha ne ko boo nekkee ci aljanna mbir yooyu dañ la koy garantiral doo ko ñàkk fi nga xamante ni nekk na fa iblis dikkal ko daal di koy nax ci ne ko hal adulluka ala shajarati alxuldi wa mulkin laa la ndax du mën a tegtal loo xamante ni moo gën ci li nga nekk ni mooy nga am nguur goo xamante ni nguur guy sax dàkk la ba pare itam xéewal gi nga nekk ni doo ko jóg dootoo ko ñàkk loolu doomu aadama loolu rek la bëgg muy nguur goo xam ne amul fu mu yem beneen bi ci des mooy xéewal goo xam ne da ciy nekk du ci jóge ba mukk seytaane jëfandikoo jumtuwaay boobu nga xam ne ba léegi ci lay ndax doomu aadama yi muy fekk loo xamante ni sa tàngee moo ci nekk sa borom subhanahu wa taala dala koo tere ndax gënul ci yow mu ñëw nax la jëfandikoo tur yoo xamante ni tur yu lay wor la daal di la koy digal nga def ko bi ko aadama defee ci la ko yàlla subhanahu wa taala génne ci sécurité boobu mu amoon ci mbir yooyu dal di ñëw ci kaw suuf li yashqa ngir nag war a commencé di di sonn ndax ñàkk na mbir yooyu nga xam ni yàlla subhanahu wa taala garanti la loon na ko ko léegi bu ko waratee am foog mu sonn waaye yàlla subhanahu wa bi mu ko wàccee ci kaw suuf dafa am wax ju am solo ju mu wax mooy dafa xamal aadam moom ak ay doomam ne ko dinaa yónni ci yéen sama yonent ñu indi leen sama njub képp koo xamante ni topp na sama njub yooyu kooku dina nekk ci dal dina nekk ci jàmm moo xam foofu ak bu ñëwaatee fii waaye képp koo xamante ni dëddu na njub boobu dina dund dund boo xam dund bu xat la wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka wa naxshuruhu yawma alqiyamati ama fa inna danka koo xamante ni dëddu na njub loolu dina am dund bu xat ñenn ci borom xam-xam yi tekki ko ne dund bu xat boobu mooy dund bu xat bi muy dund ci bàmmeelam ñu ko tuddee azabul xabar aw euh, azabul xabr muy mbugalu bàmmeel xat bi nga xamante ni bàmmeel dina ko xat ci moom ak mbugal yi ñu ko fay mbugal ak tànc bi mu koy tànc ñu tekkee ko noonu waaye mën na gën a yaatu loolu ndax xayaatu dank boobu muy dund bu xat boobu mën na feeñ tamit fii ci àdduna nga gis ne kon loolu ay junj la yoo xam day wane ne doomu aadama mën na dund fii ci kaw suuf ci dund boo xamante ni dund bu dal la dund bu jàppandi la dund bu texe la comme mën na fi dund dund boo xamante ni dund bu texee bu xat la bu metti la itam déggin bi nit ki war a am tamit dund bu xat ak dund bu dal foofu la koy sukkandikoo mooy foofu ñu junj léegi ci topp njubu borom bi subhanahu wa taala ak dëdd ko ndax jàppandal gi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala jàppandaloon na ko aadama mbir yooyu nga xam ne dina ko aajowoo ci ci aljanna bi mu wàccee fii ci àdduna mu xamal ko ne ko foog nga sonn balaa nga ko am coono boobu ñëpp ci yem ñëpp ci yem kon wàllu fàggu win gi loolu doomu aadama yi yàlla subhanahu wa taala da leen cee yemale teg ay asbaab euh, séddale wërsëgam nit ki mën na sax gën a góorgóorlu ci digganteem ak borom subhanahu wa taala te du tax mu bari la ci mbir yooyu kon mbir yooyu mënta nekk ay nattuwaay ndax yàlla subhanahu wa taala moo koy joxe comme nu mu ko soobee te ndax mbir yooyu nga xam ne ay jumtuwaay la mën na may nit ki dund boobu nga xam ne mooy dund bu dal loolu yépp ay question la yoo xam ne mënees na koo tontu ci biir waxtaan bi mais ci tàmbali bi foofu nit ki kon am tasawur mooy mu teew teewlu ci xelam bu ñu waxee dund bu dal ban sens lañ ci nam loolu dina gën a feeñ ci waxtaan bi ci yenn point yoo xam ne dinañ ci jaar insha allah boo gisee yàlla subhanahu wa taala bi mu wax naan man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mumin fala nuxiyannahu xayatan tayiba koo xamante ni jëf ay jëf moo xam góor la wala jigéen la te loolu mu teg ko ci kaw ngëm yàlla subhanahu wa taala di jëf ay jëf yu baax yàlla moo dinañ ko dundal dund boo xam bu tey la xayaa tayiba boobu dundu bu tey boobu dafay am loo xam ni wàllam fii ci àdduna la am loo xamante ni ci àllaaxira loolu kon di firndeel ne base bi nga xam ne moo njëkk te mënta ñàkk ci dund boo xam ne dund bu dal la mooy ngëm yàlla subhanahu wa taala mooy al iman ginnaaw loolu al amalu saaliha soog a ñëw muy jëf yu baax mais ngëm yàlla googu asaas la ci muy fondement la ci boo xam ni nit ki mënta am dund bu dal te jiitalul ngëm yàlla ci ay mbiram ndax yàlla subhanahu wa taala ci fitra boobu la sàkk doomu aadama bi mu waxee yonte bi alayhi salatu ne ko aqim wajhaka lid diini xanifa daf ne fitrat allahi allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillah nature bi yàlla subhanahu wa taala sàkk doomu aadama mooy bakkanam gëm ne am na boroom boo xam ne moo ko sàkk bakkanam gëm ne am na borom boo xam ne moom moo ko sàkk ndax ak amam firnde la ci amuk borom boobu nga xam ne moo ko amal ndax moom amul woon dafa jekk jamono mu am kon am na ku ko amal te ku ñu amal boo amee sak am day nekk firnde ci ne am na ku la amal léegi doomu aadama bi saa bu génnee ci nature boobu ko yàlla sàkkoon ak dundam mënatul nekk dund boo xam dund bu dal la ndax génn na ci nature bi ko yàlla subhanahu wa taala sàkkoon léegi bu ko defee mu nekk ci benn vide boo xam ne moo koy indil problème ci dundam du mën a am dund boo xam ne dund bu dal la ndax nit ki sa borom bi nga xamante ni subhanahu wa taala moom moo la sàkk amal la ngir ay jubluwaay nga wëlbatiku weddi borom boobu subhanahu wa taala weddi jubluwaay yooyu nga xam ne moo tax mu amal la sakk am ci boppam amatul daanaka daanaka solo amatul njariñ ba tax na am googu du nekk am goo xam ne am guy guy am njariñ lay doon dund goo xamante ni dund guy am njariñ lay doon du mën a nekk dund xam ne xayaa saida lañ koy tuddee mu dund goo xam dund gu texee lay doon dund gu texee di la bokk na ci yi gën a am solo ci yi nga xam ne ngëm yàlla subhanahu wa taala dina ko def ci euh, dund ki nga xamante ni moom moo melowoo ngëm yàlla googu ci dal goo xam ne dina nekk ci dund googu mooy nit ki bu fekkee dafa wékk xolam ci yàlla gëm yàlla subhanahu wa taala ute na ak ki nga xamante ni amul ngëm yàlla boobu ci dund bi ñuy nekkee ndax ki gëm yàlla bu ko dara dalee dafay xam ne lii yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal ci moom bu amee xéewal tamit mu xam ne lii ci yàlla subhanahu la jóge mu delloo ko ci yàlla subhanahu wa taala loolu am na lu rëy loo xam ne dina ko def ci dundam googu par rapport ak ki nga xam ne amul amul ngëm yàlla googu moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam bi mu wax naan ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu xayr tegaat ci ne walaysa dhalika illa lil mu'min mu ne mbiru ku gëm yàlla lu doy waar la ajaban li amril mu'min ndaxte mbiram lépp yiw la lépp lu baax la in asaabathu sarraa'u shakara fa kaana xayran la wa in asaabathu daraa'u sabara fa kaana xayran la bu ko luy bégle bu ko bànneex jotee mu gërëm yàlla subhanahu wa taala sant yàlla subhanahu wa taala loolu nekk yiw ci moom léeg-léeg sant gi muy sant njariñ lam cee jële moo ëpp sax njariñu yiw bi nga xam ne yàlla subhanahu wa jox na ko ko maanaam meññant bi muy jariñu wat ci sant bi muy sant borom bi subhanahu wa taala moo xam meññant bu ko yàlla di jox léegi nii mu gis ko ak meññant bi ko yàlla subhanahu wa di dencal bu ëllëgee mooy ëppat njariñ xéewal gi nga xam ne ci la nekk loolu nit mën na koo mën na koo xam bu baax bu fekkee xam ne lan mooy maana shukur ndax shukur boobu mooy bu la yàlla subhanahu wa taala joxe xéewal nga fas ci sa xol ne lii ci borom bi subhanahu wa la jóge jógewul ci keneen ku dul moom accepté ne lii yàlla subhanahu wa moo la ko jox du sa xel du sa kàttan du pexe keneen ba tax nga jot ci loolu moyen la mais li ko indi dëgg-dëgg yàlla la beneen bi ci des mooy nga tudd loolu ci sa làmmiñ wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith nga tudd loolu ci salaam yi sant yàlla subhanahu wa taala ci beneen bi ci des mooy jëfandikoo ko ci ni ko borom bi subhanahu wa léegi kon bu fekkee nit ki taxaw na ci sukkur boobu xaqiqatan njariñ rek la koy jural ndax dafay jëfandikoo neama boobu ci façon boo moom da koy jariñaat ndax bu fekkee dafa jëfandikoo neama bi ci sukkur mooy ci sant yàlla subhanahu wa taala sant boobu njariñ la du ko lor mukk alors que ki nga xam ne dafa am neama deful sukkur boobu neama bi mën na wëlbatikuwaat nekkaat adab nekkaat mbugal ci moom fi'lan bëri na ci nit ñi ñoo xam ne li ñuy yor xéewal lañ koy tuddee fil asli mooy cosaan bi xéewal la mais ñàkk sant gi mooy dem ba wëlbatikuwaat xéewal bi mu mujjaat nekk mbugal ñàkk sant bi mooy bu fekkee dégg nga sansu sant mooy xam ne sant dañ koy jëf i'malu ala daawuda shukra yàlla subhanahu wa ta'ala mi ngi doon digal njabootu yonent yàlla daawud naan leen jëfe leen sant sant dañ koy jëfe du rek lu nit ki di wax beneen bi ci des mooy bu fekkente ni ab métti dal na ko aw naqar dal na ko dafay muñ mu nekkaat yiw ci moom dafay muñ mu nekkaat yiw xataa métit yi dal jullit yiw la ci moom muñ boobu muy muñ muñ la boo xam ne ci ngëmum la koy sukkandikoo amul ngëm googu mënoo am muñ bu mel noonu li nga mën a def mooy ñàkk pexe toog waaye muñ boobu yonente bi alayhi salatu di wax naan wa in asabathu darra'u sabara fa kaana xayran lahu sabru boobu sabru la boo xam ne muñ la boo xam ne dafay ci ngëm li koy firndeel mooy li wax ne walaysa dalika illa lil mu'min keneen amul loolu ku dul ku gëm yàlla muy particularité la boo xam ne ñi gëm yàlla rek ñoo ko am te loolu force la moo xam ci jamonoy mbég wala ci jamonoy kontaan wala ci jamonoy naqar ci jamonoy tiis ngëm yàlla googu mooy sukkandikukaayam kaayam bi muy sukkandiku ba lenn ci loolu du ko génne ci xayaa saida boobu lenn ci loolu moo xam xéewali la wala moo xam naqari la lu koy génne ci dund bu dal boobu dund bu texe boobu amul boo gisaatee ku gëm yàlla subhanahu wa taala boo gisee yàlla subhanahu wa bi muy wax ci diggante jullit yi ak yéefar yi jaamaarloo yi ñuy jaamaarloo ñaari kuréel yi ku ci nekk di ci loro loraange di dal jullit yi loraange di dal yéefar yi yàlla daf daan wax jullit yi naan leen in takunu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuun wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun bu ngeen dee souffrir di am ay métit yu leen di dal te seen jaamaarloo yi ngeen di jaamaarloo ñu yàlla métit yooyu itam yu mel noonu dafay dal seen i noonu waaye particularité bi mooy wa tarjuuna min allah malaa la yarjuun mooy da ngeen di séntu ci yàlla yéen loo xam ne ñoom séntuñu ko ci yàlla mooy yaakaar gi ngeen am ci seen borom ci métit yi leen di dal ñoom amuñu ko ndax jullit dafay jàpp ne li ko yàlla di nattoo nii ay xéewal moo nekkaat ci ginnaaw ba ndax yàlla dina ko ci yokkal ay yool bu fekkee muñ na ko yàlla dina ko ci jégal ay bàkkaar ba bu ëllëgee li ko yàlla di fay ci ay xéewal daf koy yéem daf koy jaaxal fekk lépp mi ngi ko ko fayee ci natt yi nga xam ne daan na ko teg ak yim daan yi gàllankoor yi ko daan gaar ci àdduna kon kooku déjà am na benn base boo xamante ni bu am doole la muy ngëm am boo xam ne keneen mënu ko am moo tax ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla ci ay problème lañ dëkk ndax lu ñuy sukkandiku ba mën a am maîtrise ci ñaari bunt yooyu dafa jafe muy bunt yi nga xamante ni bi ay bànneex la ay xéwal lañ koy tuddee problème la parce que xéewal yooyu ci boppam da ngay xam ne ay nattu la yu yàlla subhanahu wa taala di jaam bi mu am doxalin yoo xamante ni moom la ciy def mu mun koo jural njariñ wa illaa ay lor la koy juralaat muy xéewal yi yàlla teg ci kaw suuf inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala yàlla subhanahu wa taala li fi nekk ci ci kaw suuf ci xéewal moo ko def mu nekk taar boo xamante ni da ciy natt doomu aadama yi kan ci ñoom mooy rafetal jëfam kan ci ñoom mooy rafetal ay jëfam inna dunya xulwatun xadira wa inna allaha mustaxlifukum fiha li yandura kayfa taamaluun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awala fitnati bani israila kanat fi nisa yàlla subhanahu wa taala moom la soob mu taaral àdduna ci taaralu bët ak taaralu caf ga boo ko xoolee bëgg ko ba noppi itam boo ko ñemee mu neex loolu moo tax mu ne xulwatun loolu lu ñuy ñam la xadiratun lu ñuy xool gis ko la mu rafet loolu taaru waaye loolu yépp yàlla subhanahu wa taala daf ko def ngir nattu leen kan ci yéen mooy rafetal ay jëfam li yanzura kayfa taamaluun lan la ci yonente bi alayhi salatu wasallam teg def ne fattaqu dunya wattaqu mooy tandiku leen adduna mooy tandiku leen jigéen loolu li muy tekki mooy ne kon ndakate xéewal yooyu ay nattu la yoo xamante nit ki bu ca nekkee bu amul iman boobu di ko mën a yóbbu ci ashukr day mujj wëlbatikuwaat nekkaat adab ndax du ko jëriñ waaye da koy lor beneen bi ci des mooy baabu euh, albala wala al ibtila muy natt yi nga xamante ne moom mooy dal jaam bi loolu moom daanaka lépp ci waxtaan bi ci loolu lañ koy jàllale insha allah bokkat yi nga xam ni moo gën a màgg yoo xam ne moo mën a jural jàmm bi mu am alxayaatu almutmainna walxayaatu saida am inshiraaxu sadr mooy mu am dund bu dal dund bu texe am dënn boo xamante ni ak xol boo xam ne xol bu ubbeeku la xol bu dal la mooy euh, taxqiqu tawxid mooy jàmm bi dëgëral ak dëggal wéetal yàlla subhanahu wa taala ci kaw suuf bañ a def ay bokkaale tawxidullah muy wéetal yàlla subhanahu wa taala ci bépp xeetu wéetal yi ñu ko war a wéetal wéetal ko ci jëmmam bi moom borom bi subhanahu taala kenn la ci jëmmam bi du ñaar benn yàlla subhanahu wa moom moo am kenn la ci ay jëfam jëfam yi nga xamante ni moom rek moo ko jagoo di ko jëf ci nguuram gi ci di bind di rey di wërsëgal jëf yu mel noonu yàlla subhanahu wa moom moo ko jagoo mooy doxal lépp lu nekk ci asamaan ak suuf ala lahu alxalq wal amr tabarakallahu ahsanul xaaliqin yàlla subhanahu wa taala rek moom moo jagoo mbir yi nga xamante ni mooy mbiru asamaan ak suuf moom moo koy doxal amul keneen ku ci bokk yàlla subhanahu wa taala lenn beneen bi ci des mooy wéetal ko ci ay melokaanam yàlla subhanahu wa melokaan yi mag yi meloo amul kenn ku ci méngoo ak moom subhanahu wa taala tawxid boobu luy def ci jaam bi ak dal la ci façon boo xam bu yaatu saa boo xamante ne jaam bi gàttañ lu na benn yoon ci tawxiit ci wéetal yàlla subhanahu wa taala ci benn buntu ci buntu tawxid yooyu loolu dina indi ci dundam ak njaxas bu rëy rëy rëy rëy kéem nu gàttañ lu boobu toll yàlla subhanahu wa taala doon wax ne ci xuloo bi nga xam ne moo doxoon ak dàgg bi doxoon diggante ibrahim ak xeetam mu leen di woo ci yàlla subhanahu wa ngir ñu jaamu ñoom ñiy dàgg sante ak ñu moom ci di wane ne seeni xërëm lañu war a jaamu wax ji ba mu demee ba sori bañ ne fa ayul fariqayni xaqu bil amn bi am leen Ibrahim waxee ne leen naka laay mun a ragale yi ngeen di bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala te yéen tiitoo leen ci bokkaaleeg ngeen di bokkaaleeg yàlla ba ci njeexital ba mu leen léegi ban ci ñaari kuréel yi moo war a nekk ci sécurité moo war am ak dal moo war a am xel mu dal ci li mu nekk yàlla subhanahu wa taala daf ci teg ne alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo gëm yàlla kon ngëm yàlla gi foog mu jiitu waaye nag jaxasuñu ci ngëm yàlla googu ak tooñ jaxasuñ ci ak tooñ mun ne ñooñu ñoom ñooy ñu yelloo ak dal ñooñu ñoo war a nekk ñu confiant ñoo xam bu ñu tëddee nañ nelaw ñooñu tam ñoom ñoo tegu ci njub saxaaba yi bi ñu déggee loolu dañoo ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam maanaam bi yàlla wàcc aaya bi daal di jaaxle ne ko ñun day wax dëgg yàlla ab aaya wàcc na box xam jaaxal nañu ndax dafay wax ne ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te jaxoñ jaxasewuñ ci seen gëm yàlla ak tooñ ñooñu ñoo war a dal te ñun loolu mënuñu cee mucc ndax même kenn si ñun bu tooñul moroomam sax wala mu tooñ boromam dina tooñ boppam kon tooñ moom kenn si ñun mënu cee mucc kon li muy tekki mooy ñun mënuñu bokk ci aaya bi yonente bi alayhi salatu salaam xamal leen ne leen tooñ googu bokkul tooñ gi ngeen di wax nii bokkul ak tooñ gi ngeen di wax tooñ googu yàlla subhanahu wa di wax ci aaya boobu mooy li luqmaan waxoon doomam ne ko yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim tooñ googu mooy bokkaale mooy shirk kon ñooñu nga xam ne ñoo jaxas seen ngëm yàlla ak shirk wa maa yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mooy nit ki mën na boole jiital ngëm waaye teg ci ak tooñ tooñ googu mooy shirk ñooñu nga xamante ne bi ñoom ñoo gëm ba pare teg ci ak tooñ kon ñooñu du ñu am am na muy dal googu warta nekk ci ñoom kéem fa seen tooñ toll ak ngëm li parce que ça dépend ci nit nekk ak fi sa shirk toll sa bokkaale fu mu toll kéem fa sa bokkaale boobu toll kéem lu tolloog li nga jaxas ci sa ngëm ci bokkaale kéem lu ngay ñàkk am na boobu mooy lu ngay ñàkk dal googu ak lu ngay ñàkk euh, confiance boobu la bu fekkente ni nag imaan nekku fi moom mooy xalaas parce que daf ne alladina amanu walam yalbisu ñaari mbir la la la leen melal bi ci njëkk mooy al iman ñaareel bi ci des mooy mucc ci bokkaale mooy mucc ci tooñ tooñ googu mooy bokkaale léegi bu fekkente nit ki dafa tàbbi ci bokkaale bi boole ak ngëm gi nga xam ne jiital na ko loolu day waral ci moom mu ñàkk am na boobu mu ñàkk dal ga waaye bu fekkee dafa ñàkkaat ngëm nga mooy ngëm yàlla gi nekku fi bokkaale bi rek moo fi ne loolu moom moom mooy wax ju jeex fa la mbir mi yam moo tax kon bokkaale boobu na ci li gën a mën a xañ nit ki al na mu ñàkk ak dal kon li nit ki war a xam mooy bu fekkee dafa bëgg dund gu dal li njëkk ci lim koy njëkk sàkku mooy ngëm yàlla subhanahu wa taala gu mat koo xamante ni dina ko gëm borom subhanahu wa taala xamante ni moom moo ko sàkk pour dundam mën a am sens balaa dara xew dund bi ngay wax naan na na texe na ñàkk a dund bi déjà pour mu am sens li ci jiitu mooy nga gëm sa borom bi nga xam ne moo la amal ndax am ba pare ki la amal nga weddi ko sax am daanaka amatul njariñ bi ci des mooy moom moom nga xam ne moo la sàkk nga wéetal ko jox ko àqam sa diggante ak moom subhanahu wa taala mooy xaqullahi ala al ibad muy tawxid boobu bu fekkente nit ki taxqiqul tawxid boobu la dunda munta am ak dal moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ne mathalu alladina ittaxadu min duni illahi awliya ka mathali alankabut ittaxada baytan alankabut ittaxadat baytan wa inna inna awhana albuyuti la baytu alankabuti law kaanu yalamun yàlla subhanahu wa taala di wax ne dafay misaal ñi nga xamante ne bi ñooy ut ci lu dul yàlla subhanahu wa taala ay péete ittaxadu min dunillahi awliya ay péete ci lu dul yàlla subhanahu wa taala ñoo xamante ne dañuy féete ak ñoom mooy ñoo xam dañ leen di bokkaale ak borom bi subhanahu wa cër ñu waroon jox yàlla moom lañ leen di jox gaa yooyu ak lu mu mën a doon yàlla subhanahu wa taala ne kamathalil ankabut ittaxadat baytan dafay mel ne comme jargoñ boo xamante ni dafa sàkku dafa tabax ab kër dafa defar këram mu a noonu la mel bàyyi yàlla wékku ci leneen bàyyi yàlla wekku ci leneen mu ne loolu li muy nirool mooy jargoñ boo xam ne dafa defar këram mu ne wa inna bu al buyuti la baytul ankabut mu ne te kër gi gën a ñàkk solo ci kër yi mooy këru jargoñ ndax mënta fegal boroomam tàngoor mënta fegal boroomam ngelaw mënu ko fer fegal taw mënu ko fegal dara même bu dara jugoon bëgg a dal ci kawam sax mënu ko koo fegal kon kooku jàppul ci lu dëgër kooku mënta am dal ci yàlla rek la nit ki mën a jàpp wéetal ko moom borom bi subhanahu wa taala jox ko àqam ngir mën a am dal googu mën ngir mën a am lu ko sàmm way laa bu ko defulee lu jug day dal ci kawam moo tax kon shirk boobu nit ki mënu cee tàbbi ba noppi di am euh, confiance di am ak dal di am ak mucc ba léegi yàlla subhanahu wa taala tamit di misaal jaam bi nga xam ne dafa tàbbi ci bokkaale ak jaam bi nga xam ne dafa mucc ci bokkaale mu ne daraba allahu mathalan rajulan fihi shurakaa mutashakisuun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyaani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun yàlla subhanahu wa taala mu misaal nit ki nga xam ne dafay tàbbi ci bokkaale ak ki nga xam ne yàlla rek subhanahu wa taala moom lay jaamu yàlla rek subhanahu wa taala moom lay wéetal wéetal ko ci bépp xeetu wéetal mu ne ndax ñaar ñooñu boo leen di misaal pour xam seen ñàkk yam mu ne mi ngi mel ne waa joo xamante ni benn buur moo ko moom benn borom la am ñaari jaam benn jaam bi am benn borom boo xam ne moom moo ko moom moo koy sant muy def lu ko tere mu bàyyi ak benn jaam boo xam ni dafa am ay ñu bëri ñu ko moom kenn rek moomu ko ñu bëri ñoo ko bokk ku nekk ak say bëgg-bëgg ku nekk ak say bañ-bañ kii de ñëw sant ko lii mu ne ci keneen ñëw sant ko leneen keneen ñëw sant ko leneen keneen ñëw sax tere ko soo moytul lam doon def léegi lan lay def dootul xam lu muy def dootul xam lu muy bàyyi ci jaaxle lay dëkk ak ci ay problème parce que ñoom ñëpp ku nekk bëgg na la satisfaire taxaw ci sa mbir te loolu mënu koo boole moo tax kon nit ki li mu war a def mooy yàlla subhanahu wa mu def ko muy yàllaam keneen ku dul yàlla doo doo yàllaam loolu bu ko defee ci lay noppalu mu koy digal muy sant lépp lu muy def mu koy méngale ak li yàlla subhanahu wa taala bëgg ci moom ak li ko yàlla sant lu muy bàyyi tamit mu koy jëlee ji foofu ndax loolu rek moom moo ko mën a noppal te yàlla subhanahu wa taala moom boo ko joxee cër boobu ci moom ci yow mu noppal la ndax yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra yàlla subhanahu wa taala lu yomb la bëgg ci jaam ñi lu jàppandal namm ci ñoom ci lim leen di sant ak lim leen di tere du jafe du jafeñal ci ñoom mukk saa bu jafee sax mu teggil leen alors que bu fekkee keneen nga jox cër boobu ci yow mu sas la loo xamante ne lu metti ci yow la loo xam ni soo moytul attanuloo ko wala di la tere loo xamante ni lu diis la ci yow kon même bu doon kenn la sax coono la waxatuma laak muy ñu bari boobaa moom daanaka lu xawta mën a nekk lay daal di doon bu ko defee nit ki nekk ci ay njàqare ak ay ak coono yoo xamante ni kenn du xam ko mu yem kon nit ki ngir mu noppal boppam ci loolu li ci njëkk mooy mu taxqiq ak tawxid yàlla subhanahu wa taala cër bi mu am di cëru boroom di cëru buur boo xam ne moom la ñuy jaamu lépp lu mu wax ñu def lu mu tere ñu bàyyi ba cër boobu nga jox ko yàlla rek keneen koo jox cër boobu ci sa dund ku dul yàlla wala yonentam bi nga xam ne moo ne in tutiuhu tahtadu man yutii rasula faqad ataa allah bu ngeen ko toppee di ngeen jub ku topp yonent bi moom nga topp kooku mën nga ko jox cër boobu ndax day delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala moom sallallahu alayhi wa sallam waaye keneen ku dul moom boo ko joxee cër boobu di nga sonn ndax doomu aadama yàlla da ko sàkk ngir mu nekk jaamu borom bi subhanahu wa taala wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun yàlla dafa sàkk jinne sàkk doomu aadama ngir ñu nekkal ko ay jaam bis boo soppee mbir mi nekk jaam ngir keneen ku dul yàlla da ngay daal di sonn sa àdduna moom noppi naa dal nekk noppi naa nekk àdduna bu texe dund bu texe dund bu texe di ci ngay dëkk te li ngay def li ci gën a doy waar mooy du la amal njariñ xam nga nit kiy sonn sax di sonn ci lu ko amal njariñ mu baax mais li ngay sonn moo la amal njariñ lu ko gën a tuuti boo ko dajoon ci sa diggante ak sa borom mu ëppal la njariñ moo tax buntu boobu tamit nit ki foog mu xalaat ci bu baax a baax bokkat na ci yi nga xam ne ba léegi dafay dimbali jaam bi ci mu am dund gu dal googu li ñu tuddee ak taxalli bi sidq mooy nit ki euh, fexe amal ci boppam ñaari mbir mooy nekk ci lu loo xam ne dëgg la bañ a nekk ci loo xam ne du dëgg ñaareel bi ci des mooy mu dëggu ci kaw dëgg boobu mu nekk mu dëgg ndax nit mun naa nekk ci kaw loo xam ne dëgg la waaye du ca nit ki mën naa dëggu itam ci la mu ne waaye la mu nekk du dëgg ñaar yooyu yëpp bu ci nekk problème la yonente bi alayhi salatu bi mu wax naan as-sidqu tuma'nina wal bu riiba dëgg ak dal la dëgg confiance la bu ñuy wax confiance dal mooy dëgg lépp képp ku ànd ak dëgg bu yeboo sa xel dal waaye tamit sàkku nañ ci boo boo nekkee dëgg ci kaw dëgg boobu nga dëggu ci li nga nekk mu ne safaan ba di al kadhib muy lépp lu safaanoog dëgg mu ne loolu riba mu ne loolu ak ay sikki la ak jax-jaxal la goo xam ni nekkul ak dal kon nit ki bu nekkee ci ci dara te la mu nekk du dëgg kooku mënta ànd ak euh, tuma nii na mënta ànd ak dal ci riba rek lay nekk ci sikk lay nekk ci mbiram li tax mooy la mu nekk moo nekkul dëgg ñaareel ba ca des mooy bu nekkee ci loo xamante ni dëgg la sax te dëgguwul ci la mu ne ba léegi problème la ndax ñàkk dëggu problème kon li jëkk mooy nit ki jéem a xool loo xam ne dëgg la ndax dëgg bu ci nit ki nekkee daf koy indil dal daf koy jural dal loolu moo indi problème bi ci àdduna bi nit ku ne yaa ngi xool ci loolu loo lonk ndax doomu aadama mënut a toog noonu rek fokk mu am ci lu mu lu mu dalalee xelam lu mu wékk boppam nit ku nekk dangay ngay seet seet leen loo xamante ni jàpp nga ni li mooy dalal sa xel léeg-léeg nga gis koo xam ne du dëggu ci boppam li tax dëgguwul ci boppam mooy day nax boppam li ko yàlla sant mu waroon caa ne loolu jural ko ak dal newu ca mu bàyyi ko léegi bu ko bàyyee ba xam ne gàttañ du na ca dafay dem jéem a ut nag loo xam ne dina compenser loolu dina taxaw place loolu maanaam ut lu mu dalalee xelam parce que xel mi moom du dal bu fekkente ni gàttañlu nga ci la la yàlla santoon li taxoon yàlla sàkk la indi la fi nga nekkal ko jaamam li mu jox tam bi alayhi salaatu wasalaam nga ne ci guddeeg bëccëg di ci def sa kéemtalaay kàttan nit ki saa bu gàttañloo ci loolu mu jural ko ak tiit jural ko ak sikki sàkk ci ay mbiram léegi nag mbir moomu ngir mu dalal ko ci xol bi fokk mu am lu mu ko fàttee loo xam ne ca lay dem wékk ca boppam ak ca boppam pour dalalee ko xelam waaye yàlla na fekk mu nekk loola muy yóbbu boppam di ko ca wékk loolu nekk sédox nekk dëgg saa boo xamante ni loolu du dëgg lam doon ut du ko am saa boo xamante ni loolu du dëgg lam doon ut du ko am kon nit ki fokk mu nekk ci loo xamante ne bi dëgg la ngir dëgg boobu mën koo teg ci confiance mu nekk ku dal beneen bi ci des mooy nit ki bu fekkente ni dëgguwul ci problème lay nekk dëggu bi li ci njëkk mooy dëggu sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala ci gëm ko subhanahu wa taala ni nga ko war a gëmee euh, doomu aadama yi dëgg boobu tamit dina jural nit ki ak dal ci façon boo xamante ni façon bu nit ki di yëg la nit ki saa boo xamante ni dëgguwul ci li muy li muy séq digganteem ak nit ñi ci ay problème lay nekk ndax imma muy wax lu amul wala muy jëf loo xamante ni teguwul ci dëgg loolu ci tiit ak ci ragal la koy teg boo xamante ni bii du dakk du jeex mukk ndax bis bu ne mi ngi tiit mbiram feeñ wala diw mi waxoon na ko lii wala defoon na ko lii mu ngi ragal dajeek moom bërëb sàngam wala mi ngi ragal diw dikkal ko di ko indil ay jafe-jafe ci lam ko waxoon wala lam ko defoon ba tax na bis bu ne ci ak tiit ak ñàkk dal lay ne moo tax yonente bi alayhi salatu wax bi wax ne al kadibu riba loolu boo ko xoolee règle générale dëgg ci sikki sàkk lay teg nit ki ci dengi lay teg nit ki kon nit ki war na ko bu baax moo xam ci digganteem ak boromam la moo xam ci digganteem ak ay moroomi mbindeefam la muy jëflante ak ñoom ci loo xamante ni dëggu la loolu moo koy may jàmm moo tax ñu naan defal def la nga mën wax la nga mën boo tëddee da nelaw loolu li muy tekki mooy say wàllu jëf ak sa wàllu wax nga koy teg ci kaw dëgg teg ko ci kaw leer lu leer bu ko defee boo tëddee da ngay nelaw da ngay daal di noppalu mais saa boo xamante ni bi doo def loo mën doo wax loo mën mooy loo xamante ni teguwul ci dëgg ci say jëf wala ci say wax chaque jour ci ay problème ngay dëkk chaque jour ci ay problème ngay dëkk bokkat na ci asbaab yi gën a màgg yoo xam ne dina jural jàmm bi ubbi ko xol ak dund boo xam dund bu dal la mooy al iksaar min zikrillah mooy nit ki di bëri di tudd yàlla subhanahu wa taala di bëri di tudd yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala wax naan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ci tudd yàlla subhanahu wa taala la xol yi di dale xolu doomu aadama mi ngi dale ci tudd yàlla ak ci fàttaliku yàlla ndax zikrullah des na ko tekkee fàttaliku borom subhanahu wa taala ci xol bi bañ a sàggan ci boromam ndax xol bu sàggan ci boromam mooy ñu mu doon wax naan nasullaha fa ansaahum anfusahum laa takunu kalladina nasu llaha fa ansaahum anfusahum ñi nga xamante ni bi dañoo fàtte yàlla yàlla fàtteloo leen seen bopp xamatuñu kan la ñu doon ñoom nit jàmm bi warul fàtte yàlla loolu mooy sa xol nga fàtte sa xol ci mbiri borom bi subhanahu wa taala doo delloo sa xel ci borom bi subhanahu wa taala ak ci màggaayam ak ci ay firndeem yi nga xam ne war nga cee xool ba tax nga ragal sa borom subhanahu wa taala di delloo sa xel ci yi sa borom sant ak yim la tere nga koy jëmmal ci sa xel ngir mën di ci taxaw ak ngir mën di sàmmoonteeg moom saa boo xamante ni xol bi sàggan na ci loolu loolu daf koy daal di jural benn vide boo xam ni la ay daal di solu lépp ay mbir la yoo xamante ni du amal xol ba njariñ bu ko defee kooku du mën a am xol boo xamante ni xol bu dal lay doon beneen bi ci des mooy du tudd yàlla tudd yàlla goo xamante koy tudd ci làmmiñam loolu tamit dina jural jural nit ki ak dal yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xadis boo xam ni alimam abi daawud moo ko solo bi xadis abdullah ibn abbas mu doon wax naan man lazima al istighfar jaala allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli duyqin maxraja wa razaqahu min xaytu la yaxtasib yonente bi alayhi salatu wasallam daf daan wax naan képp koo xam ne da ngaa taxoo ak jéggalu yàlla subhanahu wa taala jéggalu yàlla di wax astaghfirullah di jéggalu yàlla foo toll nga taxoo ak moom mu ne yàlla subhanahu wa taala dina la defal saa boo nekkee ci njàqare mu mu defal la ca ab njàppandal saa boo nekkee ci ci njàqare mu defal la njàppandal saa boo ci xat-xat yàlla subhanahu wa taala ubbil la ci bunt boo xam ne da ngay mën a génn ci xat-xat boobu ba noppi tamit nee na dina wërsëgal waa jooju foo xam ne foogeewu ko woon dina ko wërsëgal foo xam ne séntuwu ko woon loolu doomu adama mbir ñetti mbir yooyu saa bu ko amee dundam dafay dal ndax njàqare yi nga xam ne mooy ñëw di jafeel dundam ak di mettil dundam bëgg na lu ko ci dindi ñaareel ba ci mooy bu demee ba nekk ci ay xat-xat bëgg na lu ko ubbil bunt pour mu mën a génn ci xat-xat yooyu kon nit ki war na di taqoo ak genre azkar yu mel noonu ngir yàlla subhanahu wa di ko baaxee su nekkee ci taxawaay ak ci xat yu mel noonu yàlla subhanahu wa taala jëlee ko ci ba léegi bokkaat na ci yi nga xam ne nit ki war na koy jëfandikoo comme ay jumtuwaay ngir mën a am dund boo xam ne dund bu dal la mooy ak taxaddus bi niamillahi zahira wal batina mooy nit ki di waxtaanee li nga xamante ni bi moom mooy yàlla yi xéewali yàlla subhanahu wa taala def ci moom xéewali yàlla subhanahu wa def ci jaam ñi xam ne moo ci feeñ ak dina yëpp mooy mu koy waxtaanee di ko jëmmal di ko waxtaanee di ko bége di fàttaliku fu mu toll ne yàlla subhanahu defal na ma xéewal sàngam xéewal sàngam te waxtaane ba mu koy waxtaanee bañ a nekk ngir puukare ak ngir ndamu ci kanamu nit ñi ndax ñaari mbir yooyu li yàlla subhanahu wa ta'ala waxoon yonent bi ne ko amma bi ni'mati rabbika fa xaddis na ngay waxtaane sa xéewalu borom loolu mu bañ cee jublu di damu ci kanamu nit ñi ak di puukarewu ak di wanewu waaye mu jublu ci màggal yàlla subhanahu wa ta'ala ak delloo yàlla subhanahu wa ta'ala njukkal ci xéewal yooyu nga xam ne def na ko defal na ko ko ak itam bëgge ko ndax yàlla subhanahu wa ta'ala bu la defalee xéewal nga nangu xéewal yooyu bëgge ko loolu am na kontante bu rëy bu muy def ci yow dina tax tamit ngay fàtte yi nga xam ne yu ay naqar la yu lay dal ndax boo dee waxtaanee xéewal yi di ko jëmmal muy feeñ ci yow nga ciy def sa xel foo toll dina tax bu la lu met lu metti dalee nga delloo sa xel ci xéwal yooyu xam ne lii du dara par rapport xéwal yi la yàlla defal par rapport ak mooy di comparer naqar yi ngay jànkoonteel ak yi la yàlla defal nga gis ne daanaka naqar yi aw aw aw fepp suuf la woo sànni ci biir géej par rapport xéwal yi la yàlla defal yépp loolu kon warul tax nga jël sa sa sa dund lépp aj ko ci benn naqar bu la dal fàtte xéewal yi la yàlla defaloon yépp ba benn naqar boobu bëgg yàq sa dund waroo def loolu léeg-léeg seytaane moo lay dikkee foofu di la di la di la di la bëgg a sa dund ci benn naqar tuuti te doomu aadama mënoo mucc ci loolu loolu waroon nga cee préparer sa bopp dina ñëw si kanam mooy nit ki war boppam ci ne naqar mu am foog dal ko benn naqar boobu dal la benn natt bu ndaw dal la nga fàtte xéewal yi la sa borom defal yépp yaa ngi ci ay xéewal yoo xam ne ñaata ci ay junni junni doomu aadama ñu ngi doon bébét ñoom am xéewal yooyu benn naqar boobu bu ndaw boobu nga fàtte xéewal moo tax kon di waxtaane ak di fàttalikuwaat xéewal yi yàlla def ci yow bu la yàlla tegee nattu nga xool nattu bi par rapport xéewal yi nga xam ne yàlla jox na la ko yépp te benn ci natt ci xéewal yooyu rek bu yàlla sàkk woon ci yow nga sant ko ci dëgg-dëgg sant mënoo koo matal benn ci xéewal yooyu rek bu yàlla santoon nga sant ko ca na mu mënoo koo matal kon bu fekkente ni wax dëgg yàlla ngëm yàlla gi ñu waxoon ci tàmbali bi lu dëggu la ci sa xol sa diggante ak sa borom waroo saalit war nga santaat yàlla subhanahu wa ci ne natt li mu la natt dèjà du lu bon ngir mbugal la ngir mettital ci yow waaye xéewal la bu la yàlla defalaat encore di la natt nga nangu ko ngir ne yàlla subhanahu wa taala moo la ko nga gën a santaat yàlla subhanahu wa ci bu fekkee delloowaat nga sa xel ci yi nga xam ne yépp defal na la ko ci ay xéewal nga gis ne natt boobu du dara ci seen wet du dara ci seen wet bokkat ci jumtuwaay yi nit ki war a gën a jëfandikoo ngir gën a mën a neexal dundam bañ a naqaril dundam bañ a yàq dundam am dund goo xam ne dund gu dal la fi ci ko suuf mooy mu bañ a nekk nit ku séeneen rawatina ci buntu xéewal li doon wax sànq mooy bu la yàlla joxe nga bañ a jël sa bët ko teg ci lu loolu ne jox na diw ëpp loolu yàlla subhanahu wa taala moom moo ëppalante ci diggante nit ñi ci ni leen joxee jox ñii lii jox ñii lii jox ñii lii moom moo seddale moom subhanahu wa taala kenn nu ko soobee moom borom bi subhanahu wa taala kenn mënta sukkandiku ci ni mu séddalee ne kii la gënale ci kii ndax gënale du feeñ ci ak séddaleem ëppale moo ciy feeñ ne ëppaleel na kii waaye loolu de sukkandiku ne kii la gënale ci kaw kii yàlla subhanahu wa taala mën na jox nit lu bari fekk ne du caagante ni da koo bëgg da koo gënale dafa nekk nit ku baax moo gën ñi mu jox ñu ñun lu néew léeg-léeg mu jox nit lu néew fekk ne kooku sax moo gën yàlla xam ci moom ne lu néew li mu ko jox moo gën ci moom ndax bu ko joxoon lu bari mu nekk fitna yàqal ko diineem te bu diineem yàqoo mooy perte na ndax alal ji ko yàqal diineem diine ji moo ko gën a am njariñ ci moom kon doomu aadama day xëccu di jëm ci buntu alal ci buntu boobu am ci gisin boo xam ne gisin gàtt la te yàlla subhanahu wa taala moom mbiram lépp ci xikma la koy teg lu mu def rek noonu la léeg-léeg mu jox nit ndax xam na ni bu ko joxulee mënta dégg ko am ab ñàkk te ñàkk googu bu newee ci moom mun na koo jural alkande léeg-léeg itam mu xañ nit jox ko lu yam rek ngir ne bu ko joxoon mu beew mbeew googu yàqal ko diineem moo tax kon bu la yàlla joxee santal yàlla subhanahu wa taala ñaan ko mu defal la ci barke te bañ a séeneen séeneen mooy li yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax man huwa asfala minkum ولا تنظروا إلى من هو فوقهم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم loolu la yonent bi alayhi salatu wax naan dee leen xool ñi leen féete suuf te bu leen di xool ñi leen féete kaw ndax loolu moo gën a yey ci ngeen bañ a xeeb xéewal gi leen yàlla defal ndax boo dee xool bis bu ne ngay teg sa bët ci ñi la féete kaw ci wàllu am-am ci wàllu xéewal su yàggee di nga xeeb di nga doyadal li la yàlla jox ci xéewal te moo ne li la yàlla jox ci xéewal lu bari la loo xamante ni yow ñi nga féete kaw ñoom ñi ngi koy xool di la ci ñee ngir nga bañ a dugg ci loolu xeet googu li nga war a def mooy nga def safaan ba mooy ngay xool ñi nga xam ne yow yaa leen tane di gën a sant yàlla di gën a sant yàlla ci ne yaa leen ci buntu ay xéewal yi la yàlla defal waaye tamit ci ñi nga xam ne yaa leen tane ci buntu ay ndogal ak ay nattu mooy bu la yàlla tegee nattu bul xool ñi nga xam ne ñoom yàlla tegu leen ko nga ni lu tax mu teg ma ko te ñuy tegu leen waaye xoolal nga xam ne lim leen moo gën a metti moo gën a tar lim la teg yow ñi nga xam ne yaa ci buntu boobu yàlla teg na la benn nattu nga gis ne diw moom li ko yàlla teg moo gën a métti yàlla bu ma defalee sutura ba tegu ma li mu teg diw waaye lii rek la ma la ma teg maa ngi sant maa ngi sant maa ngi sant ndax diw xam naa ni li ma am nii li ma dal nii bu fekkoon moom la du ko sax gëmee nit ki bu dee jëfandikoo règle boobu ci dundam dina noppalu bu baax a baax muy bañ di nekk nit koo xam nit ku séeneen di xool ñi nga xam ne ñoo la féete kaw tey xool ñi nga xam ne yaa leen tane loolu dina tax nit ki di sant santaat yàlla subhanahu wa fu mu toll ba tax doo taxaw ci sant sa borom subhanahu wa taala ci xéewal yi la def te loolu yëpp boo ko defee yaa ngi tooñ sa bopp ndax xool bi ngay xool ñi la ëppale du tax nga am loo warutoon a am te léeg-léeg mën na laa dugal ci fàggu fàggu mbir mooma ci anam boo xamante ni waroo ko fàgg fàggoo noonu na doomu aadama yoo xam ne li leen di tàbbal ci di def lu xaram ak di mooy borom ci wàllu fàggu win du du dara lu dul ak waa joo xam ne wala ñoo xam ne yàlla jox na leen lu lim la jox nga bëgg ala mikk am li ñu am ba tax loo xam nga def ko ngir am comme ni ñu amee loolu mën a dugal nit ki ci façon tooxi doona gu ne moo tax kon jaam bi nga xam ne moom dafa jiital ngëm yàlla ci bunt bi ba pare xam itam ne du càggante ni yàlla lim jox ni diw moo ëpp lim ma jox loolu tegtalawul ne moo ma gën a jege yàlla tegtalawul ne moo ma gën a baax ndax yàlla séddalewul noonu mbir yi yàlla bu doon xool ci mbaaxu jaam bi rek ngir xéewal ko ngir jox ko kon bari na ñoo xamante ni ci ñàkk la ñuy deewee am dara ndax am na ñoo xam ne defaluñ yàlla dara te yàlla subhanahu wa taala jox leen lu bari waaye loolu tegtalewul ngërëmu yàlla ci ñoom mais li muy tegtale mooy jay bu leen yàlla di jay ndax yonente bi alayhi salatu wasallam dafay wax ne boo gisee nit mu ne ci mooy yàlla guddeeg bëccëg yàlla way wéy di ko jox ne na faalam annama huwa istidrajun min mu ne bu yeboo nga xam ne yàlla daf koy jay daf koy istidraj mooy li ñu tuddee ootal lu mel ne gis ab bàyyi ma boo xam da nga koo bëgg a xëcc mu ñëw nga jox ko lekk tegal ko mu lekk loolu nga tegalaat ko beneen mu koy topp ba agsi ci fa ko bëggoon jàpp nga jàpp ko ñoom yàlla noonu la leen di def lim leen di jox daleen koy jox ngir ñi gën a bëgg bëri bëri ay bàkkaar ngir yàlla mën leen gën a duma loolu lañu tuddee istidraj loolu lañu tuddee istidraj mooy yàlla subhanahu wa ta'ala leen di daf leen di jëy ba ñu ñëw mu daal di leen jàpp mbugal leen moo tax kon buntu boobu nit ki waru cee waru euh, ci ci natt nattuwaay yu mel noonu la muy bañ di xoolee foofu di xool tamit nit ñi ci li leen yàlla subhanahu wa ta'ala ci ëppale bi ñu ko ëppale waaye muy xool ñi mu tane di sant yàlla subhanahu wa taala léeg nga gis nit koo xam yàlla da koy jox masalan xéewal yu bari muy walbatiku di def ak dem taxawaay yoo xam ni ñi mu tane ñoom dañuy dañuy dañuy jaaxle dañ naan waa kii moom kii moom lan la lan mooy mbiram man de wax dëgg yàlla li mu nekk su ma ci newoon wala li mu am su ma ko amoon suma piliyaan bu rëy laay ut daal di toog jaaxaan loolu bari na loo koy gis ci àdduna li ko indil coono boobu mooy ñàkk sant xéewalu yàlla ci moom xeeb xéewalu yàlla ci di xool loo xamante ni moo ëpp li nga xam ne ci la ne loolu moom mooy indi genre taxawaay yu mel noonu bu ko defee mu ne ci coono boo xam ni coono ak naqar boo xam ne day tax sax dootul mënati am yëg bànneexu xéewal gi mu nekk dootu ko mën a yëg ndax day jàpp ne daanaka amul dara mu bokkat ci dimbale nit ki ba léegi ci bunt boobu ngir am dund boo xam ne dund bu dal la mooy at taslim li qadaa illahi wa qadarihi mooy nit ki nekk ku nangul yàlla ci ndogalam nangu ndogalu yàlla subhanahu wa taala bokk na ci li gën a noppal nit ki mooy ne yàlla subhanahu wa taala daf ne inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar xalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira yàlla subhanahu wa moom moo dogal mbir laata mu ñuy sàkk dañu fi indi ci la dogal mbir lépp loo xamante ne dafay am yàlla subhanahu wa taala dogal na ko ba bind ko teg rufiat al aqlam wa jaffat suxuf yonente bi alayhi salaam mooy li mu waxoon xalima bañ xalima yi ñu doon bindee ndogalu jaam ñi teggi nañ ko desu ko tegaat te itam lañu bindoon wow na ba noppi kenn du ci dolli dara jaam bi bu fekkente ne xam na ni yàlla subhanahu wa li koy dal ak li muy am ci ay mbir ci ndogali yàlla subhanahu wa lay jóge dafa war a nangu ndogal yooyu ci moom ndax bari na koy wax naan yàllaa ko dogal yàllaa ko dogal ci làmmiñ bi mais xol bi nangoo ko li ci ëpp solo mooy nit ki fexe ci xolam bu nangul ndogalu yàlla bu ko mbir dalee nekk lu naqari mu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu nangu ko ci xolam xam ne lii moom ab jaam la boromam bi ko moom sàkk ko moom moo ko dogal ci moom mu nangoo ko noonu naka noonu itam bu gisee ci nit yàlla xéewal ko mbir mu nangu ko xam ne lii yàllaa ko dogal ci moom loolu dina ko musal ci benn feebar bu bon boo xam ne bu dalee nit dundam yàqu na muy feebaru kiñaan di xasad xasad muy keñaan bu xasee nekk ci xolun feebar la comme ni nit ki di feebaree di jël ay garab di faju ne dafa sibur wala yooyu keñaan noonu la nekkee feebar ci xolu nit am ay mbir yu koy jur ak yoo xamante ne ñoo koy gën a yokk ci nit ki mu am itam yàqute yu bari yoo xam ne keñaan googu dina ko def ci nit ki bu xasee dal nit ki lu bëri la yàq ci dundam xayaa saida boobu muy dund gu dal ak dund gu texe googu moom daanaka ñàkk na ko muy as alxasad lu bari lay yàq te lim mën a jur lu bëri la ndax xasad mën na dem ba sax weddiloo nit ki yàlla weddiloo nit yàlla ndax boo xoolee iblis li ko daanaka tax a weddi yàlla li ci gën a mag rëy rëy lu mi ngi ci waaye li ko lal dëgg dëgg dëgg mooy keñaan gu mu keñaane woon aadama ci xéwal gi ko yàlla joxe ci xéwal gi ko yàlla joxe boo xoolee banu israil ak li leen yàlla defal ci ay xéwal yépp yàlla leen wax ne yaa bani israil adkuru nimata nimati allati anamtu alaykum wa anni faddaltukum ala alaalamin yàlla lu mu leen joxul ci ay xéwal amul yàlla gën a woon leen ci mboolem mbindeef yépp yàlla yëkkati leen ca kaw di jël ci ñoom ay yonent ñi leen daan jiite sax ay yonent lañ kaanat banu israila tasuusuhum al anbiya kullama halaka nabi baata allahu nabiyan aw xalafahu nabi ay yonent ñoo daan jiite seen i mbir xéewal bu leen yàlla defal amul Moussa di leen ko fàttali yaa qawmi idkuru nicmat allahi alaykum id jaala fikum anbiyaa wa jaalakum mulukan wa aataakum ma lam yuti ahadan min al alamin yàlla subhana taala jox leen lu mu joxul kenn ci mbindeef yi waaye terewul bi yàlla yabalee ak yonent boo xam ne bokkul ci ñoom mu ñëw nekk mu jëntalu yonent yi gën ci yonent yi xasat keñaan googu moo tax ñu weddi ko daldi léegi jóge ci position bañ nekkoon ci yàlla gënale woon leen ñu mujj nekk ci ñu gën a bon ci doomu aadama yi yàlla di leen méngale ak mbaam xuux yi ak xaj yi ñu mujj dem foofu kon gis nga ni keñaan xasat feebar bu bon la keñaan feebar bu bon la te bokk na ci lu koy gën a jur ci nit ki mu ñàkk nangu ndogalu yàlla ci jaam yàlla moom mooy dogal lu ko soob ci ay jaamam yàlla moom mooy séddale wërsëgu jaam ñi moom mooy séddale itam natt yu ñu leen di natt ci ñoom loolu ci moom lay dellu ci coobareem lay dellu li nga mën mooy wakkirlu ci moom dellu ci moom ak di ko ñan ak di sabablu mais mbir mi moom ci loxo yàlla la nekk kon lu ci yàlla def nga nangu ko dangay noppal sa bopp ndax nangu gi nga koy nangu ak ñàkk nangu ko ko koy ñàkk nangu du soppi dara kon yow sa bopp ngay noppal ndax boo ko nanguwul tamit yàlla defal nit xéewal masala nga koy xool bëti nanguwuloo xéewal googu yow yaay sonn yaay gaañ sa bopp ndax sa xol mi ngi ci metti sa xol di ci feebar feebar boobu di la ronger di la indil ay problème di waral ci yow sax yenn taxawaay yoo xam ne dañ ciy loroo te du tax loolu dañ te du tax loolu dañ ndax yàlla subhanahu wa moom moo ko dogal kon buntu boobu tamit nit ki war na ci bàyyi xel bu baax mooy nangu ndogalu yàlla yi bari na na ku koy wax mais léeg-léeg jëfe ko mooy jafe rawatina ci waxtu woo xam ne waxtu metit la waxtu naqar la waaw waxtu boobu moom nekk ci ku nangu ndogalu yàlla dëgg dëgg dëgg li ko mën ci nit ñu néew lañu ñu bari ci nit ñi bu boobaa dañuy fàtte sax lan mooy ndogalu yàlla bokkat ci moyens yi nga xam nit ki mën na koo jëfandikoo ba léegi ngir teeyal ak dundam ak neexal dundam ak am xol boo xam ne xol bu dal la ci dundam mooy di rafetal ci di jëmale ci mbindeefi yàlla yi subhanahu wa taala di rafetal di jëfale ci mbindeef di jëmale ci mbindeefi yàlla yi subhanahu wa taala ci ay wax ak ay jëf nit ki digganteem ak mbindeef yi lu mu mën ci rafetal si digganteem ak ñoom mu koy def ci di leen jariñ njariñ loo xamante ni lu leen amal njariñ la seen àdduna ak seen alaxira ci di saraxe di joxe ci alalam ak ci ay taxawaayam ak ci waxam loo xamante ni daf ci jariñ jaamu yàlla yi rafetal googu bu koy def ci digganteem ak nit ñi daf koy jural kontaante daf koy jural benn satisfaction boo xamante ni intérieurement loolu da koy day defar lu bari ci dundam day daal di nekk nit koo xamante nit ku yaatu dënn lay doon nit ku yaatu xol lay doon koo xam ni yàlla da koy dindi lu bari ci ay naqar ak ay njàqare ci sababu rafet googu muy rafetal di jëmale ci nit ñi ndax rafet googu muy rafetal di ko def ci nit ñi dafa am maanaam da leen di rendre service am na lu bëri loo xam dina ko def ci jaam ñooñu loolu day delluwaat ci moom ndax al jazaau min jinsil amal nit ki li ngay def loolu lu mel noonu la yàlla di jëf yi nit ki di def moo xam ci wàllu àdduna nit ki di ko def di ci séntu yàlla subhanahu wa taala yàlla da ko ciy fay ay yool naam mais da cee am ay meññant yoo xam ne yàlla da koy wittal jàmm bi fii ci àdduna mu gis ko ndax jëf bu nekk da cee am ay jeexital yoo xam ne da koy jeexital ci dundu jàmm jëf bu nekk da ci am ay jeexital yoo xam da koy jeexital ci dundu jàmm bi loolu dina gën a feeñ bu ñëwee si kanam nga gis yonentu bi alayhi salatu salaam bu musaa nekk ci njàqare muy daw di làqatu ci julli julli pourtant lan moo tax nit di ko def nit daf koy def ngir am yoonu borom bi mais lan moo tax mu daan am njàqare boo xam ne mbiru àdduna la ba pare di ko saafara julli moo lay won ne la kon jëf yooyu ngay jëf dafay amaat jeexital bu muy jeexital ci sa dund ci loo xam da nga koy yëg nii loolu moo tax kon rafetal boobu nit ki bu fekkee daf koy def ci digganteem ak mbindeef yi ci digganteem ak jaamu yàlla di def njekk teranga ak lu baax ci digganteem ak nit ñi moo xam ci ay wax wala ci ay jëf ak li mel di fasal ci xolam loolu yiw rek la koy jural loolu dafay yaatal dënnam dafay yaatal xolam loolu daf koy dàqal ay njàqare daf koy dàqal ay métit naqar ndax nit ku gën a yaatu dënn ci bunt boobu moom moo lay gën a noppalu ko nit koo xamante ni bii loolu nekkul ci moom mu bokkat ci mën a dimbali nit ba léegi ci bunt boobu mooy nit ki bañ bàyyi boppam noonu bañ a vite bañ a am jot am jot mooy euh, alcheytaanu yaidukum alfaqara wa yamurukum bilfahsha cheytaane mi ngi fi dafay def liggéeyam doomu aadama xel bi mi ngi fi jumtuwaay la waaye cheytaane tamit day ñëw am ci wàll léegi nit da am ay ay njàqare am ay tiit tiit am ay naqar ay lu bari day dikk di ñëw ci sa xel ak ci sa xol mais boo ko mayee temps boo xam da nga ciy nekk amoo leneen loo def di préoccupé wu ci mbir yooyu dafay dem ba mbir yooyu day mujj yàqal sa yàqal la sa àdduna mel na comme ay montagnes yoo xam dañ la ko teg alors que pourtant nekkul ay mbir yu existé nekkul sax lu am ay mbir la yooyu xalaat rek yoo xam ne nekkul sax lu reyal nit ki di ci xalaat mën cee def waxtu yu bari mu koy indil ay jafe-jafe yu bari ci dundam léegi-léeg ñi nga xam ne gëmuñ yàlla yooyu mën na leen yóbbu bañ dem ba xaru léegi nit ki pour mu mucc ci loolu dafa war di nekk kuy yitteel boppam kuy occupé wu di occupé wu ci lu ko amal njariñ ci di jëf jëf boo xam ne amal na ko njariñ wala muy sàkku di jàng xam-xam boo xamante ni dina ko amal njariñ loolu muy def ni muy yitteelee xel mi dina def xel mi dootul am jot nekk di xalaat ci mbir yooyu ndax bu ko deful woon bàyyi boppam noonu am jot deful dara wala toog xalaat rek nekkul day day yittewoo di jàng xam-xam boo xam da koy jariñ pour mën a occuper place ci xel mi place boobu leneen moo fay ne loolu ay njàqare la ay xalaat la yoo xamante ne amalu ko njariñ yoo xam da koy sonal ci àddunaam ngir mu mucc ci loolu muy fatt temps boobu ak itam di dimbali koo jaamu yàlla bi ñu doon wax sànq ci bu fekkente ne dafa nekk ci waxtu yoo xamante ni waxtu njàqare la wala mu am ay mbir yoo xam daf koy sonal ci xelam di ko indil ay tiis tiis ak ay métit te loolu seytaane da ci am wàll bu rëy rëy rëy ci yi nga xam ne weesu nga ko mu la ci fàttali ay mbir di la ci métital ak yi nga xam ne mooy dëkk di ñëw ci kanam mu la ci loo moo tax yàlla ne yaidukumul faqr wa yamurukum bil fahsha daf leen di dig ak ñàkk doomu aadama dafa ragal ñàkk seytaane day ñëw di la di la dig ñàkk di la tiitloo ñàkk amuloo doo am dara sa mbir bi ngay sentu du baax wala nangam sàngam li nga yor nii mu naan la di nga ko ñàkk ci kanam di la tiitloo léegi nag wa yamurukum bil fahsha boo tiitee nag mu commencé di leen digal lu bon di la digal ak ñaawteef boo tiitee mu bëgg la wan ne la léegi moyens yi nga mën a def pour mucc ci tiit bii mooy lii ak lii te lim lay digal loolu lépp dara nekku ci loo xam ne dëppoo ak santaane borom subhanahu wa taala la ngir nit ki moytandiku loolu ak mucc ci loolu na bañ a may seytaane ci boppam wàll na bañ a bàyyi vide bi noonu na ko exploité ci leneen loo xam dina ko jëriñ ci jëf wala ci xalaat xalaat bi mooy mu jàng xam-xam boo xam dina ko jariñ même dee chaque jour mu jàng benn xadis ci xadis yonent bi alayhi salatu loolu soxal ko nekk ci xel mi mu koy xalaat wala mu mokkal lenn ci ay aaya alquran moo ko ëppal njariñ wala mu dem gëstu benn xam-xam boo xamante ni xam même bu dee xam-xamu àdduna la bu ko amal njariñ moo ëpp ci moom njariñ mu bañ a bàyyi noonu boppam xalaat yeeg naqar yi dem ba dominer ko indil ko ay jafe-jafe ak ay problème ci dundam beneen bi ci des aussi mooy muy dimbali ko ay jaamu yàlla yoo xam daf koy gën a kàttanal gën koo dëgëral ndax yàlla subhanahu wa ta'ala mi ngi wax naan wasta'inu bi sabri wa salaa yàlla subhanahu wa mi ngi digal jullit ñi naan leen na ngeen dimbali koo muñ ak julli na ngeen dimbali koo muñ ak julli loolu yonent bi alayhi salatu daf ko daan jël jëfe comme ni mu ñëwee ci musnad al imam ahmad daan na faral di wax naan arihna bi salaati ya bilal noppal ñu ci julli yow bilal noppal julli bu ñu nekkee ci njàqare ak ay métit yu tar da daan wax mu taxawal julli bu ko defee ñu daal di dugg ci julli bu ñu duggee ci julli boobu Euh, taxaw bi ñuy taxaw seen kanamu borom ak de delloo seen xel ci seen borom dina fàtt dina leen fàttaloo lu bari ndax nit ki déjà buy julli bu jógee dafay jàpp njàpp loolu muy jàpp bu ko fekkoon ci ay naqar ak ay euh, métitu xol ak mer ak mel noonu njàpp li da koy fay ndax njàpp dafay fay métitu xol yooyu njàpp da koy fay moo tax nit ki di taxaw ak njàpp lu baax la wala bu fekkente ni yooyu fekk na ko jamono joo xam ne àndul ak njàpp mu jóg mu jàpp boo jàppoo nga jug da dugg ci julli jamono bi ngay nekk ci julli lu bari yàlla subhanahu wa mën na la ko teggil ci naqar yooyu ak njàqare yooyu ba nit ki laata muy génn ci julli boobu bu fekkee teewlu na ci julli bi dëgg dëgg dëgg dëgg jëmmal boppam ne mi ngi diisoo ak boromam subhanahu wa taala daanaka du génn ci julli bi lu dul yàlla teggil na ko naqar yooyu ñaareel bu ci des mooy bu jullee ba pare mu ñaan bu ñaanee yàlla subhanahu wa taala daal di koy saafaral bu dee ay problème la yoo xam ne dafay jànkonteeg moom yàlla subhanahu wa taala fajal ko ko ndax yonente bi alayhi salatu wasalam digle woon na moo jullit bi bu amee euh, soxla mu ñaari rakaa daal di tàllal loxoom borom subhanahu wa taala ñaan ko bokkat ba léegi ci buntu boobu aussi nit ki bañ a nax boppam muy bañ di jëfandikoo ay jumtuwaay yoo xam ne daanaka amalu ko njariñ daf koy lor mu nit ki nekk ci ay jafe-jafe ci dundam yoo xamante nit kenn mënu cee mucc doomu aadama bu nekk fokk nga jànkonte ak moom léegi nga bëgg a daw réalité yooyu tax ngay jëfandikoo ay yoon yoo xam ne da lay loraat daf lay gën a sànq masalan koo xam day nekk ci naqar daal di taal cigarette yaakaar ne cigarette yooyu muy dox moom mooy wàññi naqaram alors que xamul ne mu ngi détruire boppam parce que li muy jëfandikoo moom ci boppam ab jàngoro la du faj jàngoro nga koy fajoo da lay yokkat feebar ay problème la lay yokk wala muy jëfandikoo drop wala yu mel noonu ngir tàggoog xel mi bu ko defee xëy na mu fàtte maanaam boo demee ba léegi fàtte say problème foog nga tàggale tàggalikoo sa xel dëgg-dëgg loolu nekkul jumtuwaay boo xam ne bu mucc ayib la nekkul jumtuwaay bu mucc ayib beneen bi ci des mooy euh, yeneen doomu aadama yi nga xamante ni bu ñu bu ñu nekkee ci ay njàqare wala ñu nekk ci ay métit daal di dem gisi ji ab benn bu xaaba wala benn maa xam kat ngir mu defal la ay ñaan wala mu defal la ay mbir léegi yow yaa ngi wëlbatikuwaat dem di tàbbi ci njabar bi nga xam ne sa borom subhanahu wa taala ko xaraamal mu bokk ci bàkkaar yi gën a mag muy bàkkaaru njabar ngir lan ngir ay natt yoo xam ne yàlla moo la ko teg yàlla moom mi ko teg ci moom nga waroon dellusiwaat ut ci moom pexe boo xamante ni bii du génn ay ndigalam du génn ay ndigalam ko nga dem daw tàbbi ci loo xamante ni bi ay bàkkaar yi bokkaale lay jural mu nekkat feebar boo xam ne moo gën a garaw ndax wa annahu kaana rijalun min al insi yauduna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqa jinne yi boo dawee jëm ci ñoom ngir ñu fat la dañ lay gën a tiital ndax ñoom li ñu bëgg mooy not doomu aadama yi luñ la gën a not xeet nañ ko jinne du la not mukk di la yërëm wala mu naan xaaral ma wàññi bis bu ne mu gën laa tiital gën laa sonal boo ñëwee jox ko sa bopp mu gën laa not gën laa def jaamam ndax loolu rek la bëgg ci doomu aadama ndax benn problème moo nekk seen diggante ak doomu aadama mooy bi yàlla yëkkatee doomu aadama ci kaw suuf teg ko fi jox ko nguuru kaw suuf ñoom loolu da leen a métti mu nekk keñaan gum jur ci ñoom boo xam ni saa bu ñu mënee rek am benn occasion ak benn pexe pour noot doomu aadama def ko ab jaam dañ koy def ci pexe bu ñu mën nag ci tiital ko ak ci yu bari yoo xam dañ koy def ci ay jumtuwaay léegi nit ki njabar domaine u jinne la du domaine u yàlla da ngay dégg ñenn ñi naan kii yàlla da ko may xam mais xamuñ ne xam-xam yooyu nga xam ne ay xam-xami njabar la du xam-xam boo xamante ni xam-xam la boo xam ni dañ koy jaamoo yàlla nekk xam-xam bu baax xam-xam mën nañ ko tuddee xam-xam na am mais xam bu bon la nekkul lu baax ci yonent yàlla ci jamono yonent yàlla Suleymaan yàlla dafa digaloon yonent yàlla Suleymaan mu dajale xam-xam boobu yépp daal di koy dajale ci benn waxande tëj ko denc ko ngir doomu aadama yi mën ko bañati koo jëfandikoo nee nañ bi mu ci la ko jinne yi ñëw jël tasaat ko ci doomu aadama yi ñu koy jëfandikoo muy wàllu njabar njabar na am mën nga wax ne xam la mais day yàq nekkul lu baax yàlla def koo tere ne kéefër la wa ma kafara suleyman na shayatina kafaru yuallimuuna a sixr kufru la ko tuddee muy njabar nekk lu doy waar loo lu bari lay yàq ci société yi lu baree baree bare bare baree baree lay yàq société yi tiit bu bari bu nekk ci nit ñi njabarkat yi ñoo ko def ci ñoom ndax da ñëw di leen laaj ci sa mbir ñu gën laa tiital ndax ñoom luñ la gën a tiital nga gën a tiit dangay gën a am benn dépendance booy am ci ñoom te soo wéeroo ci ñoom rek ñu gën la mën a exploiter ci loolu la mbir di baaxee te loolu yëpp shayatin yi muy jinne yi mbokk iblis yi ñoo nekk ci ginnaaw njabar moom boo ko tuddee rek ak ci façon njabar bu ñu ko mën a defee moo xam njabaru kurus la njabaru këyit gu weex la gu ñuy bind wala njabaru ay ay ay pettaaw la ak ay béjjën ak ay soow yuy tuur ak yooyu façon njabar yi ñuy jëfandikoo dafa bari am na ci yoo xam léeg-léeg boo gisee ci ko da yaakaar lii du njabar masalan léegi rajo yi gisaane gi ci nekk gisaane goo xamante ne dañ koo tubaabisé français la ñuy làkk nga yaakaar ne lii du njabar ay astrologie la dangay dem rek ñu wax la voyance nangam sangam mais loolu njabar la ci njabar yi gën a bon la bokk te ay nit yu doy waar ñu nekk ci ginnaaw di ko tasaare suñu dëkk yi léegi ci façon boo xam ne da ngay yéemu ci yàlla ay jullit yu gëm yàlla ñu leen di wax seen i mbir ñu koy jéem a yittewoo di ko xam loolu nekkul ay jumtuwaay yoo xamante ne yu baax la njabar googu yàlla subhanahu tere ci li yàq dundu aadama dundu doomu aadama ci la bokk ndax shayatin yi ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di ko jëfandikoo comme moyen ngir not doomu aadama yi ngir not doomu aadama te shayatin yi ñoom ku ñu not mooy sa dund yàqu na ku ñu not am ci yow wàll bu ñu la xasee mooy sa dund yàqu na sa dund yàqu na kon nit ki foog mu bàyyi loolu xel bu baax xam ne bëgg a tamit solutionné problème yooyu noonu warul tax muy jëfandikoo ay jumtuwaay yoo xam ni lim koy lor ak li mu koy yàqal moo gën a garaaw li mu koy amal ci njariñ ndax sax am na njariñ bokkat ci li nit ki war a jëfandikoo ba léegi ci ay jumtuwaay ngir bañ a yàq dundam ak ngir dalal dundam dalal xolam mooy mu def xelam ci li muy li mu maanaam tayam ak tayam bañ a soucié wu trop ci ëllëgam nga li tey tey lañ nekk liggéeyal ngir tey li nga war a def tey def ko te nga xam ne suba yàlla def ne wa ma tadri nafsun maada taksibu gadan suba li ngay fàggu xamuloo ko xëy na xam nga ni suba dinaa def nangam waaye la nga cay fàggoo résultat ba loolu yàlla moo ko yor ci loxo yàlla nekk kon résultat yi ñëw loolu bàyyee ko yàlla yow mën nga naam planifié tëral ne suba gannaaw suba dinaa def nangam sàngam mais foofu nga yem mais la nga cay jëlee ci ay résultat loolu yàlla moo ko xam léegi bu fekkee résultats yi danga nga koo bëgg a régler tey da ngay sonal sa bopp moo tax nit ki li nga war a def mooy tey ji nga nekk nga concentré wu ci tey consacré wu ci tey sa tey nga liggéey ko suba nga bàyyi ko ak yàlla mais nga jël say matuwaay nga jël say matuwaay li nga war a def ci sa diggante ak suba nga def ko ba fa nga yem la ca xam ne domaine yàlla la nga bàyyi ko ak ba léegi dafay feeñaat ci njabar gi ñu wax sànq ci gisaane ak gisaanal gis gaa yi gisaanelu bëgg suba li ngay am ak gannaaw suba la ngay am lépp nga lijjanti ko tey loolu da ngay sonal sa bopp njabar kenn du ne amul njabar fexlan lu am la am na ñoo xam ne yaakaar nañ ni amut njabar day ne loolu dëgg la da ngay gis ku dem ci njabarkat mu defal ko dara mu am mu ne billaay nit ñi dañuy wax naan eh, njabar amul waaye li am na de li man kii bi ma defee léegi dama koo gis maanaam weddi gi ñuy weddi njabar ci lislaam du ne amul ndax lu am la xataa yonente bi alayhi salatu wasalaam ab yahudi muy labit ibn al-A'sam mës naa njabar yonent bi alayhi salatu wasallam mu dal ko ci benn xale bu nekkoon këram daan ko liggéeyal la wax ne ko na ko jox peñe bi yonent bi alayhi salatu wasallam di peñe mu jël peñe bi ruusitu karaw yi nga xam ne moo ci nekk nit ki booy peñe wu mu jël ko def ci benn njabar takk ko def ko ay fas li ñu tuddee takk bi mu ko fasee dugal ko ci benn teen fa la def fas ba sëf ko fas boobu mu ko fas yonent bi alei satu yëg wàcce qul a'udhu bi rabbil ko ci ñaari saar yooyu mu tekkee ko bi mu tekkee wan ko fi ñu def njabar bi mu yebal kenn ci saxaaba yi mu dugg ci biir teen boobu dindi njabar bi fecc ko biñ ko feccee yonent bi alei satu dafa mel ne ku ñu takkoon ko kon njabar fi'lan lu am la mais yàlla subhanahu wa taala moo ko tere moo ko xaraamal kon kon kon nekk di yittewoo mbiru ëllëg ci façon boo xam ne da ngay yàq sa tey loolu nekkul lu mucc loolu sonal sa bopp la ci loo xam ne njariñam bëriwul nit ki li muy def mooy euh, moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam daan muslu ci euh, al alham wal xasan yonente bi alayhi salatu wasallam daan na muslu lu bari ci allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal xasan daan na wax yàlla maa ngi lay muslu ci njàqare ak ci naqar mooy ci tiis njàqare lu tax mu daan mosu ci njàqare njàqare lu koy faral di jural lu jur lépp mooy ci liy ñëw ci kanam liy ñëw ci kanam ci say mbir nga am loo ciy ragal ak ay mbir yoo ciy séentu yoo xam ne yaa ngi ciy tiit loolu mooy faral di indil nit ki njàqare njàqare yooyu da lay sonal indi laay jafe-jafe ci sa dund xasan muy naqar ak tiis li koy indi li ci ëpp mooy loo xam dafa weesu nga am ci ay li mbir yoo xam da nga koy rëccu yoo xam ne boo sañoon du demee nii rëccu yooyu nga koy rëccu mooy indi ci sa xol ñaari mbir yëpp nekkul lu baax li weesu foog nga bëri ak sa xol ngir xam ne mënatoo koo soppi la ca jàll jàll na ba noppi mënatoo koo soppi nga seral ci sa xol nga nangoo ko comme ni mu amee jéem a xool yan solution ngay def pour loolu nga fàtte ko wala boog nga saafara ko ci sa xol bu fekkee mënuloo ko fàtte pour mu bañ a nekkaat problème ci di la yàqal sa tey ndax comme ko weesu na ba pare warul nekkaat du la yàqal sa tey bi nga xam ne moom weesoogul ak sa ëllëg li nga xamante ne bi ñëwagul ñëwagul warul nekk lu la ci façon boo xamante ni da lay tiital ba yàqal la sa tey gi nga nekk nii te li ngay li lay tiital lépp mbir la yoo xamante ni amagul loo xam ne xamuloo ko la ndax dara wóoru la ci dara wóoru la ci comme dara wóoru la ci nag da ko war a bàyyi noonu nga jël say matuwaay mais mu bañ a nekk lu lay jaaxal loo xam ne dafay yàq sa tey moo tax yonente bi alayhi salatu lan la digle woon dafa waxoon ne ihris ala ma yanfauk wastain billahi wala taajaz fa in asaabaka shay'un fala taqul law anni faaltu kada kana kada wa kada walakin qaddara allah wa ma shaa faal yonente bi alayhi salaam dafa doon déggal jullit ñi benn règle boo xam ne règle générale boo xam bu ko nit ki jëfandikoo ci dundam dafay noppalu lan la wax jullit bi daf ne yow jullit bi ihris ala ma yanfauka na nga xër si loo xam ne daf lay jariñ na nga yittewoo lu la amal njariñ ci sa dund loolu mooy lépp lu la amalul njariñ ci sa dund na nga ko bàyyi mais mbir moo xool ba gis ne li amal na la njariñ loolu na nga ci xër na nga ci sawar mu daal di ci teg ne wastain billah booy dugg ci mbir moomu na nga dimbali koo yàlla bul doyloo sa pexe bul doyloo sa kàttan na nga dimbali ko yàlla subhanahu wa taala na nga julli ñaari rakka nga def istixaara nga yëkkati sa loxo nga ne yow yàlla subhanahu wa taala yow yaay ki am xam-xam yaay ki am mën-mën yaay ki am kàttan ci lépp man xawuma dara kon maa ngi lay laaj mbir mii may jublu bu fekkee lu gën la ci man nag moo ko dogalal nga jàppandalal moo ko defal ma ci barke su fekkente ni gënul ci man nga jële ko ci man nga féewale ma ak moom nga dogal ma leneen loo xam ne moo gën lool ndax yow xamuloo bul dogu rek ne lii gis naa ne baax na étudier naa ko ci côté yépp kon lu baax rek la mën a doon doo diisoog sa borom doo ñaan sa borom nga daal di ciy xuus chaque jour da nga ciy def dem am ci ay surprise ndax doomu aadama xamuloo kon lu mbir mi leer leer leer ci sa kanam diisool ak sa borom ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal la ci jàppandal ndax moom rek moo xam fa innaka taalamu wala alam wa taqdir wala aqdir wa anta allaamul xuyub loolu mooy al istixaara loolu mooy al istixaara beneen bi ci xool nit koo xam ne am nga ci moom euh, rafet njort ci xelam mu rafet ak ci nekk nit ku discret koo xam ne boo ko waxee sa mbir du wëlbatiku jataay bu mu toog di ko fa waxtaanee nga dem nga waxtaan ak moom mu xelal la ndax laajte xelu nit tamit ci mbir yi ngay dugg bokk na ci li lay gën a dimbali ci boo lëgee nga bañ am réccu ndax léeg-léeg benn nit mën na xam ci mbir moomu lu bari loo xam yow xamuloo ko woon mën nga caa dugg dem ba ca biir mu gis la dégg ne dugg nga ci mu ñëw ne la man de soo ma tàgg woon ci tàmbali bi lii doo ci dugg ndax man mës naa cee jaar naa mag nangam ak nangam fekk ma ci nga dem ba ci biir loolu nga gis ko ngay wëlbatiku di rëccu rëcc yooyu ngay rëccu loolu ay naqari xol la lay jural yoo xam ne ci li lay sonal ci sa àdduna ci pour nga mucc ci wala bokk nga minimiser ko parce que nit daanaka mënu cee mucc à 100 pour cent ngay jëfandikoo ñaari mbir yooyu di def istixaara sa diggante ak sa borom fii yi nga xam ne tamit am nga ci ñoom njort bu rafet ci seen xel mu rafet ak ci seen am sutura ngay waxtaan ak ñoom ñu lay xelal ci say mbir léegi mu daal di ciy teg ne wala taajaz yonent bi alayhi salatu wasallam lan la ci rek daf ne bul lot muy baat bu am solo al ajz muy lot doomu aadama bokk na ci li ko gën a sonal ci dundam muy lot nit saa bu lottee rek muy tële croiser les bras ne mënuma ko loolu saa boo ko defee mooy jeex na non seulement doo réaliser li nga bëggoon ci lu baax parce que seytaane mooy dëkk ñëw réyal la ko wax la lu ne ba nga xàddi ajz mi ngi am ci loo xam ne da ngaa jóg war caa sóobu dox ba mu yàgg nga ni noonoo lii mënuma ko àggale naa dëkk loolu mooy ajz mooy tële ci léeg-léeg ñàkk am kóolute ci sa bopp lay dellu ak kóolute ci yàlla subhanahu wa taala seytaane dikke la ci buntu boobu tàyyeel loola xaddi loola nga daal di taxaw ne li du ma ko mën a àggale loolu noo seulement boo ko defee mbir ma nga doon def du àgg waaye dina la juralaat tamit ay problèmes yu baree baree baree bari ci wàllu sam xol ak sa xel ci ay problème ak ay njàqare ak ay mbir yoo xam ciy nekk bunt la boo xamante ni dafay tijji lu baree baree baree bari ci ay feebari xol ak ci ay naqar ay métit ci ay rëccu yoo xam ne ci dina ko rëccu ginnaaw loolu wala ci ay naq ñàq njàqare ak ay naqar yoo xamante ni dina nekk ci xolam di ko jural ay fitna kon ajz boobu noonu yonent bi alayhi salaam tere na la ko ci tàmbali mooy nit fokk nga gëm sa bopp woolu am kóolute ci sa bopp mooy loolu mënta ñàkk doo naagu yaakaar ne moom asamaan si sax mën nga koo wàcce déedéet nit doo naagu da ngay sukkandiku ci yàlla subhanahu wa taala delloo pexe ak kàttan ci borom subhanahu wa taala mais tamit li ngay def ci ay mbir yoo xam ne jàngat nga ko ba gis ne lii lu wér la nga def ko ci façon boo xamante ne li ngay def da nga ciy am confiance ci sa bopp gëm ne lii mën nga koo def ba mu mat bañ a nekk ku gaaw a xàddi moo tax mu ne wala taajaz léegi lim ci teg mooy fa ida asaabaka wala ida asaabaka shay'un fala taqul law anni faaltu kada kaana kada wa kada mu ne nag léegi boo defee loolu yépp ba noppi nga dem ba ci biir mbir ma na nga ko séentoo woon demeewul noonu danga nga ci doon séentu safaan bi dal la lu neexul moom moo la ci fekk mu ne bul commencé naan su doon su ma defoon wala xëy na wala nangam bul dugg ci buntu boobu muy bul wax naan law bul ne su ma defoon nangam wala su fekkonte ni nangam kon nangam sàngam mooy am wala nangam du am mu ne bul def loolu na nga wax ne qaddara allah wa ma shaa faal na nga wax ne yàlla moom moo dogal kay te moom lu ko soob lay def yàlla moo dogal te lu ko soob def mooy dellool mbir mi ci yàlla bul nekk naan su ma defoon lii su ma defoon lii su ma defoon lii loolu mooy indi buntu rëccu ak buntu ay xalaat yoo xam ne daf lay mettital daf lay indil ay ay problème boo ko delloowee ci yàlla da ngay daal di noppalu xam ne kon mbir mi ci yàlla subhanahu wa taala lay dellu ndogalu yàlla la nga delloo ko ci moom subhanahu wa taala bu ko defee nga noppalu ci mbir moom mais boo nekkee di wax naan law moo tax mu ne fa inna law taftaxu amala shaytan moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam ne law dafay tijji buntu seytaane dafay tijjil seytaane buntu dafay tijjil seytaane bunt pour mu dugg nag mën a def liggéeyam bu la gisee nga def sa kéemtalaay kàttan liggéey tëstasi ba sonn mbir ma sotteewul ni nga ko foogeewoon nga toog naan law law law law xëy na su ma defoon lii su doon lii su doon lii seytaane daal di ñëw ne waa ji nag léegi moom jaaxle na xaaral ma agsi mu ñëw ne la saawaay lan la nga ne ko lii lii mu commencé nag di indi ay di def ay liggéeyam te liggéey yooyu muy liggéey daf lay yàqal du la njariñ li gënoon ci yow mooy nga delloo ko ci yàlla sant ci yàlla xam ne lii yàlla moo ko def nattu la daal di commencé waat xool leneen loo xamante ne ci ngay daal di jublu bu ko defee loolu nekk benn page boo xam ne da nga koy tourné ci sa dund nga noppalu loolu bu fekkee nit ki am na kàttan bu mel noonu muy jëfandikoo genre règle yu mel nii nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasallam moo ko digle ci xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixu muslim dina noppalu lu bëri ci dundam beneen boo xam ne ba léegi dina dimbali ci loolu muy ci am dund gu dal googu mooy nga moytandiku cause yi nga xam ne mooy indi problème sa dund cause yi nga xam ne mooy indi njàqare ak ay naqar ak ay métit ci sa dund nga koy moytandiku ci di bañ a dugg ci loo mënul ak di wax loo xamante ni bi lii leeru la wala yoo xamante ni nekk lu gën ci yow dafay amaat ay conséquence ci sa dund ngay moytandiku loolu ndax dugg ci loo mënul bokk na ci li gën a sonal nit ci dundam masalan di jël ay alalu jàmbur yoo xam ne mënoo koo sàmm na mu waree ay problème di la ci fekk ay torof torof di la ci fekk wala di lépp ay xaalisu jàmbur yoo xam ne après doo ko mën a fay yu bëri ci ay problème benn bi alayhi salatu wasallam ci xadis abi saïd al xudri yonente bi alayhi salatu wasallam dafa fekk abu umama al bahili mu toog ci jàkka ji waxtu boo xam ne du waxtu julli mun ne ko yow abu umama looy def ci jàkka ji waxtu yi nga xam ne di waxtu julli maanaam jullit ñi daan nañ toog ci jàkka ji waxtu boo xam ne du waxtu julli te yonente bi alayhi salatu wasallam daaw leen laaj ñu fay def ndax am na sax ñu dëkkoon ci jàkka waaye abu umaama na mu fa toogee dafa toog toogu toogu njàqare yonente bi alayhi salatu salaam xool ko xam ne kii am na lu ko lu ko lu ko lu ko jaaxal léegi pour mu daw problème yooyu amul fenn fu muy dem mu dem toog ci jàkka ji yonente bi alayhi salatu salaam dugg ci jàkka ji fekk fa abu umaama ne ko looy def ci jàkka ji heure bii mu ne ko yaa rasulallah dama am ay njàqare yoo xam ne ñoo ma not ndar ma képp ak ay bor yoo xam ne ñoo ma topp dama am ay njàqare yoo xam ne ñoo ma képp ak ay bor mu ne humumun lazimat nii wa duyuun ya rasulallah ay njàqare yoo xam ne ñoo ma sonal ak ay bor yonente bi alayhi salatu wasalaam ko ndax du ma la wax loo xam ne boo ko waxee yàlla dina la teggil wala du la wax loo xam ne boo ko defee yàlla dina teggil sa njàqare yooyu ba pare dina la fayal sa bor yi mais bor bi mu ci tudd moo lay wan ne la kon moom am na am na cause maanaam sabab la ci problème yi léegi nag sabab yooyu nga xamante ni mooy indi problème yooyu nit ki dafay moytundiku di ko bari ci boppam daf koy wàññi du mu ay kàttanam ci bañ a dugg ci loo xam ne mënu ko masalan di jéem a adapté façon dund boo xam ne lii attanu mu koy jural ay problème ci dundam mu nekk ci ay njàqare fu mu toll ak ay torof torof ñii di kii di kii di woote fii kii di xëcc fii kii di porter plainte fii parce que lan parce que ay mbir yoo xam ne da cee dugg te lii nekk loo xamante ni mën na ko matal bu yonente bi alayhi salatu wasallam ne ko ndax du ma la wax loo xam ne soo ko defee yàlla teggil la sa njàqare yooyu fayal la sa bor yi mu ne ko ahañ kay yow yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko qul ida asbaxta wa ida amsayta yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko saa boo xëyatee wala saa boo gontootee maanaam suba ak ngoon na ngay wax naan allahuma inni audu bika min alhammi walxazan wa audu bika min alajzi walkasal wa audu bika min albuxli waljubn wala min aljubni walbuxlu wa audu bika min galabati aldayni wa qahri rijal أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله عني عز وجل فأذهب الله عز وجل عني همي وقضى عني ديني Abu Umaama ne bi ma ko defee yàlla subhanahu wa taala teggil na ma sama njàqare ba pare fayal na ma samay bor waaye li ko yonte bi alayhi salatu wasallam si ci ñaan boobu mu ne ko da koy ñaan suba ak ngoon ñaan la waaye ñaan la boo xam ne boo xoolee sens bi ñaan bu am solo la boo xam ne yow mi koy ñaan dafa mel da ngay wax ak sa bopp ndax li ngay ñaan mooy yow yàlla maa ngi lay muslu ci ay njàqare ak ay naqar allahuma inni audu bika min alhammi walxasan maa ngi lay mustu ci ay naq ay ay nja ay njaqare njàqare li koy waral mooy ci li nga xam ne moo lay dëkk mal ci sa dund te ñëwagul nga siy jaaxle di ci tiit di ci am mbir yoo ci séntu mu lay indil ay njàqare loolu nit ki da ko war da mooy tundiku xam ni ëllëgam ci loxo yàlla la nekk na jël ay matuwaayam waaye li ci des mu bàyyi ko ak yàlla <coughs> beneen bi ci des mooy alxasan te mooy naqar naqar yi li koy indi mooy li nga xam ne moo jàll ci dundam seytaane day ñëw di ko jël di ko ci métti talaat di ko ko fàttali te loolu jàll na mënatu koo dabu na ko jéem a fexe fenetal na ko fenetal ngir mu bañ a nekkaat mbugal boo xam ne day teguwaat ci kawam ndax jàll na ba pare wa a'udhu bika min al-ajzi kasal yow yàlla maa ngi lay muslu ci télé mooy télé bi ñu doon wax sànq di la muslu ci mi taayal maa ngi lay muslu ci télé di la muslu ci taayal télé boobu mooy nit ki jóg bay tàmbali di kër kër yi bay tegu ci yoon bi daal di dëppaat ne lii duma ko mën a sottal naa ko bàyyi loolu télé la loolu nekkul lu baax da ngay say matuwaay nga def nga gëm sa bopp am rafet njott ci yàlla ñaan yàlla dimbali ko yàlla subhanahu wa taala nga def ginnaaw ba bu sottee nga santee ko yàlla bu sottiwul nga xam ne loolu la yàlla dogal mais bul tële tële baaxul beneen bi ci des alkasal moom du far sax jóg moom doo jóg da toog nga toog kasal moom doo jóg da ngay toog fi nga toog léeg-léeg nga gis koo xam ne yi yi war a mën a tax mu def mbir mi yépp dafay daje mais tàyyeel mu toog du ko def loolu moom mooy problème bi moo tax yonent bi alayhi salaam ne wa a'udhu bika min al ajzi wal kasal moo tax ñaari mbir yooyu nga xamante ni moom lay mustu foofu ci buntu boobu yu am solo la kii ay bor moo ko jàpp mu jaaxle ñëw ci jàkka ji yonent bi alayhi salaam di ko wax ne ko waxal yàlla muusal la ci mbir yi kon jamono bi muy musu ci mbir yooyu moom di ko wax xam na ni kon lii baaxul léegi bu xamee ni télé baaxul xam ni tayel baaxul léegi lan lay waral ci moom te mu bëgg yàlla subhanahu wa taala nangul ñaanam kon moom day daal di jug ci saafara mbir yooyu ci boppam ndax li ngay ñaan yàlla tamit dafa war a nekk lu dëggu ci yow kon yow waratoo léegi nekk nit koo xam da ngay da ngay da ngay tële na waratoo nekk nit koo xam da ngay tayel mooy kon yow war nga góorgóorlu fexe dindi loolu sa bopp beneen bi ci des mu ne wa'udhu bika min al-jubni wal bukhlu maa ngi lay musu tamit ragal ragal bi nga xam ne mooy bàqaar muy tàkkat maa ngi la koy muslu jullit war da nekk ku ragal ndax ragal baaxul ne ragal du jam guy nit yi ngay jànkonteel ci sa àdduna foog nga takk sa fit way laa ci ay problème ngay dëkk ragal lu ne lu ne tëpp lu ne kii nga tëpp yaakaar ni ci sa kaw la jëm loolu jullit du mel noonu jullit dafa war a nekk ku am xol boo xam ne xol bu dëgër la la chaque ne doo nekk ku ku ku ku ku ku naagu lu ne nga bëgg ci dugg mais da ngay jël say matuwaay dimbali ko yàlla waaye waroo nekk ragal li ñu tuddee al jubnu muy ragal tàppet jullit warta mel noonu awaudu bika min al jubni wal buxlu maa ngi lay musul tamit nay léegi-léeg problème yu bëri yi ci di jànkonteel nay dina ko indi moo tax mu ne ko awaudu bika min al jubni wal buxlu ndax nay nit ki bu koy def moom da koy indi laat ay problème moom ci dundam da koy teg ci ay situation yu situation yu la parce que chaque fois ci problème lay nekk ci bëgg a gàttal loo xam ne yàlla da koo yaatal ndax bu yàlla yaatalee li li li li li omar waxoon ne ida wasa allahu ala ahadikum fal yuwassia bu yàlla yaatalalee kenn ci yéen na yaatal bu yàlla xéewalee kenn ci yéen na yaatal xéewalam léegi bu la yàlla yaatalalee xéewal nga bëgg ko xatal da ngay sonn ci ay xat-xat nga nekk ci ay jafe-jafe nga nekk parce que nit ñi fokk ñu jariñu ci léegi njariñ loolu ci nit ñi di mën a am te yow nga bëgg leen koo xañ loolu moo lay sonal moo tax mu ne ko wa a'udhu bika minal jubni wal buxlu buxlu léeg-léeg buxlu dina waral nit ki nay googu loo xam ne njariñam la sax mu waroon koo def mu gàttañ lu ci ba loolu rëcc ko te bëggoon a mën a sàmm alalam wala bañ lu jóge ci moom dem feneen la doon la doon bañ ba far loolu rëcc ko léegi loolu juralaat ko ay naqar ay rëccu moo tax kon buxlu boobu dafay indiwaat problème encore mu daal di wax ne waaudu bika min galabati dayni wa qahri rijal maa ngi lay muslu ci yow yàlla subhanahu wa taala ci nit ñi wala boog ci bor yi ndar ma képp ëpp ma doole maa ngi lay muslu ci loolu ay bor léeg-léeg nit mënu koo ñàkk mais mu dem ba ëpp la doole ndar la képp nga xam ne xamatoo fooy jaar ay bor loolu nit ku nekk da nga di muslu ba pare nit ki tamit war ta nekk sabab ci loolu am na ñoo xam ne fu ñu gisee ku ne damay leb la ñu ne acca même léeg-léeg ko soxlawul da leen di tànt dañ koy tàmm parce naan garaawul dama koy fay ci ñaari weer ñetti weer wala yooyu léeg-léeg loolu mooy baril bor yi ngay jël di jël di jël dem ba mujj gi boolee mujj ëpp la doole amatoo loo ko fayee wala yaa ngi doon séntu nangam nangam loolu amay torof torof jotuloo ci mu indi lay bor te bor baaxul njàqare lay indi bor baaxul ak day daynu zull bor dafay toroxal nit baaxul moo tax nit dafa war di moytandiku bor moo tax mu teg ci ne wa xalabat wa qahri rijal maa ngi lay mustu tamit nit ñi not ma ndax nit bu say bor bëree rek nit ñi not na bu say bor bëree nit ñi not la da ngay suufee ci nit ñi ndax foog ngay wàcce sa bopp ci nit ñu toroxal sa bopp ci nit ñu lay def ak di la wax yoo xam ne daawuñ la ko wax nga koy nangu parce que yow yaa seen alal moo tax kon nit ki foog moytu ko yooyu yontu bi alayhi salatu wasallam lii la jàngal abu umama ne na ko ñaan nga gis ne kon yow mii ñaan ñaan bi war nga xam sens bi loolu mooy problème bi tey nag mooy ñu bëri ñun dañuy ñaan genre ñaan yu mel ni fekk xamuloo sens bi li ngay ñaan yaa ngi toog rek naan allahumma inni a'udhu bika min al fekk ne yow <laughs> dara doo ko def yaa ngi naan yàlla maa ngi lay musu ci télé ak di la musu ci taayal fekk ne sa maanaam fi nga toog bu ndox tuuru woon sax doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko fomp ci tayal a loolu dëppoowul ak sensu li ngay ñaan loolu mooy ngay gis tey suñu jamono ji dund tamit nit kuy toog di wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah fekk ne moom li mu nekk lépp dafa waroo ak laa de laa boobu muy wax parce que li muy wax di ko répété moom xamul sens bi maanaam xamul lu muy tekki mais bu xamoon li muy tekki dina xam ne li muy wax ak li mu nekk moom méngoowul méngoowul moo tax kon nit ki buy ñaan ñaan boobu war na fexe tamit jamono bi ñu koy ñaan mu méngale moom situation ak li muy ñaan bu ko defee yàlla mën koo fekk si ci loolu daal di koy nangul ñaanam ñaan boobu kon ñaan bu rëy la boo xam yonent bi alayhi salatu wasallam jàngaloon na ko abu umama nit ki mën na di ko ñaan ngir yàlla subhanahu wa ta'ala defal ko ak jàppandal ci ay mbiram mu amaat beneen ñaan bu am solo boo xam ne ba léegi tamit gis nañ ne yonent bi alayhi salatu wasallam daan na ko faral di ñaan mu nekk ñaan boo xam nit mën na koo jëfandikoo ngir yàlla defal ko dund koo xam dund bu yëwan la mooy la yonente bi alayhi salatu wasalam daan faral di naan allahuma aslih li diini alladi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaaya allati fiha maashi wa aslih li axirati allati ilayha maadi wajcal alxayaata ziyadatan li fi kulli xayr walmawta raxatan li min kulli shar walmawta raxatan li min kulli shar yonente bi alayhi salatu wasalam daan na ñaan ñaan boo xam ne ñaan gënu koo matale moo tax di xool ñaan yi yonente bi alayhi salatu wasalam daan ñaan nit ki tënku ci di ko ñaan moo gën parce que li mu daan ñaan lépp ay kàddu jàmm na lépp lu mucc la amul lenn lu ci nekk loo xam ne mën na indil nit ki problème dafa tënku ba pare matale boo ko fi bàyyee dem jël ay yeneen ñaan yoo xam ne ñeneen a koy jël di ko fent léeg-léeg sax ñaan lay yoon yoo xam ne du mucc parce que da ciy ñaan ba ñaan ci loo xam ne soo moytuwul bu loo yàlla fekk see ci loolu mu jural ay problème ñaan dafa nekk buntu bu doy waar moo tax tënku ci li yonente bi alayhi salatu wasallam jàngale ci ay ñaan moo gën a mucc daf daan ñaan naan yow yàlla maa ngi lay ñaan nga yëwanalal ma aslix lii asalaax mu yëwanal baaxal sama diine bi nga xam ne sama mbir yépp ci laa ko aj sama diine sama mbir yépp huwa ismatu amri sama mbir yépp sama diine moom moo koy sàmmal doomu aadama diine moom moo lay sa diine moo lay sàmmal sa dina aar lépp kon diine boobu lu war a yëwan la bu baaxee lépp baax waaye bu bonee dara du baax mu daan ñaan ngir yàlla yëwanal ko diine ma la chaque ne diine moom lu baax la lu yëwan la amul lu cay yàqu mais yow sa diggante par rapport ak diine ngay ñaan maanaam yow ni ngay diine woo diine ji nga ñaan yàlla mu yëwénalal la ko ndax diine moom lu baax la bi nga xam aslih lii diine yi na mu ci yàlla defal ko yëwénal ci diine ji ko wàccee ci moom ba pare ndax lu baax la waaye li mu koy ñaan naan ko mu ko mooy moom ni muy diine woo diine ji maanaam taxawaayam ci digganteem ak diine ji loolu la koy ñaan mu yëwénalal ko ko mu daal di koy wax ne wa aslih lii dunyaaya allati fiha maashi maa ngi lay ñaan nga yëwénalal ma sama àdduna bi nga xam ne ci la sama dund nekk àdduna fi la ñuy dund kon lu bokk ci yow la foog nga sóoraale ko moo tax mu daan ñaan yàlla yàlla yëwanalal ko àddunaam bi nga xam ne ci la dund am nekk dund bi ñu fiy dund gàtt na waaye fi nga koy defee ci ngay liggéeyee tamit ëllëg loo xamante ne ci la la yàlla di xool ngir yërëm la ci la ci la yàlla di xool yërëm la si kon war nga ñaan yàlla mu yëwanal la dund boobu noonu moo tax mu doon wax naan wa aslih li dunyaaya allati fiha maashi beneen bi ci topp ngir wan na la ñaan boobu bàyyiwul dara mooy wa aslih li axirati allati maa ngi lay ñaan sama àllaaxira bi nga xam ne boo ëllëgee fa lay fa lay sama fa la sama mujj nekk nga ñëwanalal ma ko ñëwanalal ma sama àllaaxira ndax boo ëllëgee fa lay ñett yooyu yëpp mu ñaan yàlla ngir yàlla ñëwanalal ko ko loolu bu la ko yàlla boolelee ñàkkatuloo dara li mu ci teg mooy comme dund bi dañ fiy jaar jàll mu ne ko ijaal li alxayaata ziyaadatan li fi kulli xeer dund bi may dund defal ma ko mu nekk yiw boo xam ne day yokk ci man fan bu ma yokku ci sama boo ma yokkoo ci sama dund rek nekk def defal mu nekk yiw woo xam ne dafa yokk ci man waaye dee na ko def mu nekk lu may noppal ci mbonte wa jaalil mawta raxatan lii min kulli shar loolu lu muy tekki mooy su may faatu na nekk ne faatu gu may faatu la may fekk ji moo gën ci man foofu la ma fi bàyyi mu nekk ne li ma fi bàyyi lu bon lay doon ci man par rapport la may fekki ji métit lay doon ci man par rapport ak la may fekk ji nit kuy faatu war nga ñaan yàlla ba nga faatoo nga noppaliku mais nga nekk nga bañ a nekk ku ñu noppaliku ci moom ndax yonte bi alayhi salatu wasallam doon wax naan mustarihun wa mustarahun minhu mustarihun wa mustarahun minhu yonente bi alayhi salatu wasallam doon wax naan ku faatu rek génnuloo ci benn ci ñaari anam yi doon wax ne ku faatu imma nga noppalu wala ñu noppalu ci yow ku dee ku nekk imma da ngaa noppaliku wala nit ñi ak jaamu yàlla yi ñoo noppalu ci yow bu dee ku baax nga woon daan góorgóorlu di jaamu sa borom subhanahu wa taala yàlla dencal la fay dencal la yool boo lëgee boo faatoo da ngaa noppalu ndax la nga fekk ci moo gën fuuf li nga fi bàyyi li nga fi bàyyi ay métit la njàqare la naqar la par rapport ak li nga fekk ji waaye bu dee safaan ba la jàmm boo xamante ni bi la muy fekk ji musiba la defu fi lu baax yàq la fi nekke woon ci kaw suuf kooku bu faatoo doomu aadama yépp dañuy mos dañuy noppalu ci moom mbindeef yépp dañuy noppalu ci moom moo tax yàlla si yontu bi alayhi salatu wasallam nekk koo xam ne ab kàccoor la bu génn topp bu faatoo nee na suuf si géej gi mbindeef yi ba ci bàyyi may dañu noppalu ci moom dañu noppalu ci mbiram moo tax kon bu mu doon ñaan naan wajaalil xayaata ziyaadatan li fi kulli xayr wal mawta raxatan li min kulli shar mooy booy dund sa dund nga ñaan yàlla mu nekk ne dund gi dafa gën ci yow boo demee ba gënatul ci yow yàlla jële la fi yóbbu la ci la gën ci yow moo tax mu daan wax mit naan kenn ci yéen bu demee ba nekk ci métit masal ni ku feebar ba nekk ci métit boo xam ne yaakaar na ni mënatu koo attan bu mu naan yàlla faat ma yàlla faat ma yàlla faat ma di wax ñaan di ñaan yàlla yàlla jële ko fi ndax dara wóoru ko ba xam li muy fekk ji moo gën a sedd li nga xam ne ci la nekk nii mais nee na kenn ci yéen bu demee bay ñaan na wax ne yow yàlla bàyyi ma ci dund gi may dund fekk dund mi ngi gën ci man waaye bu fekkente ni dee moo gën ci man nanga ma faat bu fekkente ni dee moo gën ci man faat ma mooy mu ñaan ci condition yooyu buy ñaan yàlla mu ñaan ko ci condition yooyu ndax yàlla moom moo xam ne yow xamuloo allahuma ahyini maa alimta alxayaata xayran li wa tawaffani maa alimta alwafaata xayran li yàlla nanga ma nanga ma dundal fekk yaa ngi xam ne dund moo gën ci man waaye bis boo demee ba xam ne faatu moo gën ci man nanga ma dogalal loolu loolu mooy koo xam ne dem na ba xàdd ci àdduna dem na ba découragé ci àdduna buy ñaan bu mënta bañ ñaan na ñaanee noonu mu bokkat ci yi nga xamante ni ba léegi nit ki war na koo jëfandikoo ci bunt bi ba léegi ngir dimbali koo ko mooy bu fekkente ni ay mbir gaar na ko na teg option yépp ci kanamam maanaam bu fekkente ni nattu dal na la na nga xool li nga xam ne mooy li nga gën a jàpp ne lii moo gën a metti ci mbir mi nga séentu loolu sa bopp nga préparer sa bopp ci loolu par exemple nit jox exemple nit ko xam ne def examen jàll deuxième tour te séntu nañ day jàll d'office léegi deuxième tour boobu mu jàll jàllul d'office am na lu mu doon séntu loo xam ne am na yaakaar na ne am na ci échec échec bi mu bi mu yaakaar ne am na ko mooy le fekk mu yaakaaroon ne day ñëw rek jàll far mu dem deuxième tour léegi lu muy def na préparer boppam ci même bu ko ñàkkoon dina muñ même bu ko ñàkkoon dina muñ loolu dina tax léegi ndax loolu mooy li ci gën a metti loolu dina tax léegi lépp lu ko dalati ci diggante bi babaa muy àgg ci loolu mu préparé woon boppam bu ñëwee dina ko mën a dékku mais bu fekkente ni dafa déjà rek préparé boppam ci ne léegi dina jàll kon deuxième tour mais préparé wul boppam ci ne mën na koo ñàkk bis bu ko ñàkkee àdduna day tukki loolu kon fokk mu xam naka lay tàggatee bakkanam ak boppam ci mbir yu mel noonu mooy bu fekkente ne ay mbir gaar na ko muy préparé boppam ci loo xam ne xëy na moom moo waroon a gën a métti ndax lii bu fekkonte ni dal na ma doon naa ko mën a muñ ak nangam sàngam loolu dina tax lépp loo xam ne ñëwati na lu gën a oyof lay doon bu ñëwee dina ko mën a def ba léegi tamit nit ki war na fexe dëgëral xolam ci bunt boobu mooy yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di naqaral xolu nit ak di naqaral dundam ak di ko yàqal dundam doomu aadama bi war na fexe xam ne xolam lu mu gën a dëgër pour gën a mën a résister mbir yooyu mu gën a noppaliku waaye lu xol bi gën a néew doole ci kanamu mbir yooyu nga xam ne mbir yooyu day ñëw not xol bi sonal ko moom moom nit ki day gën a sonn ci àddunaam nit laa chaque ne dëgër xol baaxul nit ku ku nooy xol lañ bëgg nit koo xamante ni dafay rongoñoom day gaaw a tuuru waaye na nekk ci lu baax na nekk ci lu koy jural jàmm na nekk ci lu koy jural lu baax ndax rongoñ bu tuuru xol bu tooy ci fàttaliku yàlla ci fàttaliku dee gis ku ku nekk ci métit sa xol tooy sa xol dellu ci yàlla loolu yëpp dalay jural njariñ loolu yëpp day raxas sa xol waaye xol bu ñëw kàttan bi ñuy wax fii mooy xol bi nga xam ne dafay mënta dékku ay musiba bu ñëwee mu mu saalit bu ñëwee borom dootul am maîtrise ci boppam mu indil ko ay jafe-jafe ak ay naqar yoo xam ne mën na yàq lu bari ci dundam ba mën ko jural ay feebar yoo xam ne parce que métitu xol baaxul métitu xol mën na jur ba jur ay feebar yoo xam ne feebar la yu tegu ci yaram bi te lépp ay xalaat ay métit yu nekk ci xol bi di indi def li ñu tuddee stress moom moo ko indi yaakaar naa léegi ci jamono yu mujj dem nañ ba ñu bari ci feebar ci ay feebar yoo xam ne day dal nit boo demee ci médecin yi dañ lay ne la moytandikul di am ay ay naqar ay njàqare li tuddee stress ndax lu bari ci yenn feebar yi moom moo koy jur ci nit ki wala même bu ko jurul tamit daf koy gën a yokk bu ko defee muy gën a lor nit ki léegi nit ki kon foog muy jéem a fexe di góor góorgóorlu ci wàllu xolam boobu te xol bi li ko gën a mën a may kàttan ci mu am ak dëgër mooy nga wékk ko ci yàlla li ñu tuddee ak tawakkul ala allah képp koo xam ne wékk na xolom ci yàlla yàlla doy na la léegi bu la yàlla doy doyee loolu dafay tax njàqare yenn njàqare yi du la dal sa xol dafay dëgër nit ki li muy dëgëralee xolam mooy mu wékk xolam ci yàlla bañ ko wékk ci leneen leneen loo wékk sa xol ci yàlla problème la doo mën a am xol bu dëgër doo mën a am xol bu dal moo xam lu mu mën a doon lu dul yàlla subhanahu wa taala bu ci nit ki wékkee xolam mënta am xol bu dëgër mënta am xol bu dal nit ki li ko mën a may xol bu dal mooy mu wékk xolam ci yàlla subhanahu wa taala am wakkirlu ci yàlla am kóolute ci yàlla lépp lu ko dikkal mu delloo ko ci yàlla loolu bu ko nit ki defee xol bu dëgër lay am boo xam ni bu jaamaar la woon ak ay montagne sax dina mën a résister waaye nit ki bu fekkente ni deful loolu lu jóg dafay daal di noot xol bi dafay daal di dal ci xol bi loolu mooy comme li ñu doon jox exemple léegi ci wàllu jëfandikoo ay njabar nit ki bu fekkee masalan dafa jël ay mbiru njabar bu wekk ci xolam defar lu ay mbir ñu jox ko ko mu am lu mu cay séentu kooku wekkatul xolam ci yàlla ci mbir yooyu la wekk xolam léegi bu ko defee xol bi day daal di néew doole kooku ci ay njàqare ak ay naqar ay problème lay dëkk guddi ak bëccëg ndax loolu nekkul lu dëgër lu mën a sàmm xol bi yàlla rek moo mën a protéger sa xol ci may ko kàttan moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ne wa man yatawakkal ala koo xamante ne wakkiru na ci yàlla yàlla subhanahu wa taala doy beneen mbir bi ci des ci buntu boobu ba léegi pour nit ki noppaluwaat ci dundam am dund boo xam ne dund bu dal la mooy mu jëfandikoo benn mbir bu yonente bi alayhi salatu wasallam dan wax naan laa yafruk muminun mumina in kariha minha xuluqan radiya minha xuluqan axar xadis boobu rawahu al imam muslim yonente bi alayhi salatu wasalam wax naan julit bu jigéen julit bu góor bu mu becci bu mu rejeté bu mu ayibal julit bu jigéen ci mbiram ndax bu fekkente ni ñoom ñaar dañuy ànd masalan di sëy nit ak jabaram mu gis ci moom lu ko naqari am na yeneen mbir yu mu gis ci moom yoo xam ne neex na ko loolu règle générale la yonent bi alayhi salaam da ko wax ci ñaar ñuy ànd ci sëy mais des koy jëfandikoo ci sëy comme des koy jëfandikoo ci ànd bi ñuy ànd mooy nit ñi ngay jëflanteel mënuñ laa satisfaire à 100 pour cent loolu mënul nekk foog da nga war di séntu ci ñoom lekk lekk am ay njuumte wala ay gàttañ yuy jóge ci ñoom ndax ay nit lañ ndax yàlla mi la bind sax moom la yow sa sa digganteeg say sa borom mënoo koo matal à 100 pour cent da gàttañ lu sa digganteeg sa borom moom doomu aadama yàlla mi leen moom dañ koy tooñ mu leen dañuy gàttañ seen digganteeg seen borom bu yàlla sàkk woon ci ñun ñëpp ñu mel ni mu ko bëggee duñ juum benn yoon loolu kenn mënu ko kenn ci doomu aadama yi mënu ko kon doomu aadama ci nature boobu la ko yàlla sàkk mooy dafa nekk ku néew doole dafa nekk ku matadi kon booy jëflanteeg ñoom ci ànd war nga di sóoraale loolu di ko bàyyi xel loolu lu muy waral dina tax ba bu fekkente ni kenn ci ñoom juum na nga mën koo ngàntal nangul ko njuumam loolu njuumteel njuumteem loolu ndax xam nga ni kii doomu aadama la lii lu war a mën a jóge ci moom la doomu aadama la lu war a mën a jóge ci moom la dafay juum man dama koy xool ci sam bopp nga daal di koy accepter loolu loolu du tax nga daal di koy rejeter à 100 pour cent beneen bi ci des mooy leneen lim lay jural mooy dina tax doo jël sa bët nga teg ko rek ci li nga xam ne moom mooy jóge ci ñoom ci ay njuumte nga fàtte li nga xam ne amal nañ la ko ci njariñ ndax nit booy ànd ak moom da nga war di xool njariñ lim la amal te bañ rek saa bu juumee nga jël njuum loolu rek focaliser wu ci fàtte njariñ lim la amee lépp mais boo xoolee njëriñ li nga xam ni ànd bi ngeen di ànd amal na la ko moo xam sa soxna la wala sa borom kër la wala sa xarit la nga xool njëriñ yim la amal ci ànd bi ngeen di ànd ak ci yeneen jikko yi nga xam ne am na ko ak ci yeneen mbir yi nga xam ne amal na la ko ci njëriñ dina tax xëy na njuumte loolu kenn ku mat léegi bu ko defee da ngay am problème ci sa wàllu dund ak ci sa ànd bi nga xam ne da koy nekk ak nit ñi kon pour nga noppal ci sa bopp sa dund tamit foog nga bàyyi loolu xel bu ci yi nga xam ne ba léegi dañ koy seetlu mooy da ngay gis léeg-léeg nit ci góor gi rahimahullah Cheikh Abdourahmane Saadi ndax li ci bëri ci point yi moom moo koy développé ñun dañ koy nettali rek dafay wax ne léeg nga gis nit koo xam ne ay problème yu ngand dafay taxaw ci kanamam mu résister taxaw du du du benn yoon euh, sans froid am dafay taxaw wax dëgg yàlla mbir yi du ko dépassé mais mbir bu ndaw dafay ñëw def dépassé ko completement nga ne déedéet xanaa du diw lu tax mu ne parce que dafa préparé boppam ci mën a résister yu mag te yu ndaw ndawaan yi sóoraale ko woon bàyyi ko xel moo tax fa la ko seytaane di dikkee yu ndaw ndawaan yi nga xamante ni bàyyiwu ko xel léeg-léeg kenn doomam mooy def lu ndaw adunaam tukki mu dóor ko ba gaañ ko def loo xam ne après ñëpp dañ koy yedd ba gaañ ko gaañ boo xam ne après loolu dundam yëpp daf koy indil problème mu koy méttit lu alors que mën na am benn affaire bu garaaw boo xam ne dina xew ci këram wala ci njabootam mel na comme dara amul li tax parce que dafa équilibré wul ni mu organiser mbir yi da nga war fexe préparer sa bopp ci lépp ni nga mën a amee contrôle ci situation yi bu affaire yi doyee waar mbir mi kii nga mën a taaj nit ñi ci mbooloo mi wax ak ñoom mag ñi ñëpp déglu la nga delloo si leen delloo leen ci yàlla naka noonu tamit boo demee jànkonteeg mbir yu ndaw ndawaan yi nga mën a tamit dal fàttali ko la nga doon wax gars yi ba ñu ñàkkee seen xel loolu tamit nit ki da ci war a préparer boppam bu baax a baax ci yi muy wax ba léegi ci yi nga xam dina dina jëmbal nit ki ci mu am dund goo xam dund gu dal la mooy nit ki xam ne sa dund waroo koo yàq ci xalaat yooyu ak métit ak naqar yooyu nga xam ne seytaane moom moo koy euh, gën a jëmbat ak di ko di ji ci bakkanu doomu aadama bi euh, da war a xam ne dund bi nga xam ne moom ngay dund mu nekk dund bu dal lu gàtt la nekkul lu yàgg kon da cee war a nay da ko war a sàmm fexe ba kenn du la ko yàqal mooy bul yàqal sa bopp sa dund ci ay mbir yoo xam ne seytaane mooy ñëw di la ci sonal ci ay xalaat ay njàqare ay naqar yoo xam ne daf lay yàqal sa dund boobu nga gis ne lii lu tuuti la loo xam ni amoo pour di fi nekk di ko yàq ci ay mbir yoo xamante ni nekkul lu taxaw bokk na ci yi waxaat ne dañ dina jariñ nit ki ci wàllu boobu mu ne nga xam ne nit ñi lor yi ñu lay lor njariñ la ci yow loraange la ci ñoom bu fekkee am na ay nit yoo xam ne da ngay jànkoonteeg ñoom wala ngay jëflanteeg ñoom ay loraange di jóge ci ñoom di ñëw ci yaw moo xam ci seen i wax wala ci seen i jëf ñuy jël loo xam ne yellul di ko jëmale ci yow nga xam ne yow loolu daf lay jariñ yow loolu njariñ la ci yow du la lor mais ñoom lay lor loolu bu fekkente ni xam nga ko dina la noppal bu baax a baax a baax a baax ci mbir yu mel noonu ndax am na doomu aadama yoo xam ne mënuñu supporter kenn ku wax ñoom dara ak lu tuuti bu kenn waxee ci ñoom dara lu mu tuuti tuuti seen àdduna dafay tukki complètement ci lan moo tax muy wax lii ci man bu fekkee xam nga ni xataa yonent yi yàlla yebaloon ñu nekk ñi gën a mat mat ci mbindeef yàlla yi nit ñi dañu leen daan lor ay loraange yu rëy rëy rëy rëy ñu koy muñ ngir yàlla subhanahu wa taala mu leen di yokk di leen gën a yëkkati ci yàlla daawu leen wàññi dara daf leen daan jariñ kon yow bu ñu waxee ci yow warul nekk loo xamante ni da nga ciy tukkal sa àdduna da nga war gis ne loolu daf lay jariñ mais du la moo tax yonente bi alayhi benn bis dafa mës am benn alal juñ ko jox jox alalu jullit ñi la mu séddale ko bu ko daan séddalee daawul xool day day séddale xool ku nekk lim la bëgg a jox mu jox la ko daawul gis ne ku nekk ñi kii laa lii laa ko war a jox moom day xool rek lim li nga xamante ne loolu la gis ne moo gën nekk maslaxa mu def ko léeg-léeg daan na xool nit gis ne kii wàcc bees la ci lislaam ab kaw kaw la boo xam nga jóge ci àll ba ñëw tuub dugg ci lislaam lislaamam dëgëragul lu bari si ceddo mi ngi ci moom mu jox ko lu bari ci alal ñenn ñi sax du leen jox lu tax parce que xam na ne kii su ko joxee alal ju bari ji dina ko gën a sawarloo ci lislaam parce que ab nitu àll la boo xam ne xamuñu bu ko joxee alal ji dina tax mu gën a sawar dana a góorgóorlu ci lislaam gën a kontaan loolu lañ tuddee taaliful xulu xulub moo ñuy wax al muallafatu xulubuhum ñi yàlla doon wax naan dañ leen jox ci alal azaka ngir gën leen a dëgëral seen i xol euh, benn waay yonte bi alayhi salaam séddale ba pare mu daal di wax ne maa ngi waat ne séddale bi ñu séddale de ki ko def na mu ci yàlla yàlla taxul mu def ko yonente bi alayhi salatu wasalaam séddale ba pare mu ne séddale bi maanduwul yonente bi alayhi salatu wasalaam lan la wax def ne yàlla na yàlla yërëm Moussa loolu la wax yàlla yàlla yërëm Moussa mu ne aw xeetam lor nañ ko loraange bu gën a rëy bii ñu ma ñu ma ñu ma teg waaye dafa muñ aw xeetam lor nañ ko loraange boo xam ne moo gën a rëy waaye dafa muñ léegi loolu li muy tekki mooy kon nit ki bu fekkente ni am na ay loraange yoo xam ne jóge na ci nit ñi jëm ci moom moo xam ci seen i wax la wala seen i jëf la muy fàttaliku gaa yu baax yooyu muy fàttaliku jaamu yàlla yooyu nga xam ne yonent yi di ñu gën a mat ci ci mbindeef yi bu doon am na koy mucc bu doon am na koy mucc ci làmmiñi nit ñi wala muy mucc ci ci loxo nit ñi ñoom kon ñoom ñooy mucc waaye xattaa ñoom sax muccuñu ñu woon gis nga Moussa banu Israël ay wax yu bon lañ daan wax ci moom يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا lañ daan lor Moussa di ko di ko di ko tuumaal ay wax yoo xamante ni wax yu doy waar la yàlla musal ko yonente bi alayhi salatu salaam ci boppam dañ daan wax ci moom ay mbir tuumaal nañ njabootam wax ci moom ay mbir yu bari yoo xam nañ daan daan nañ ko wax ci moom te ay naafeq ñoo daan nekk ci biir jullit ñi di ko tasaare waaye daf daan muñ daawul tax benn yoon muy di leen topp ci mbir yooyu di ci def benn taxawaay boo xam daf leen ciy fekk si dafa daan mel ne ku ko déggul kon ngir nga bañ a naqaral sa dund da ngay bañ a fekk si sanoon ci moom fi mu lay woo mooy bu fekkee dangay nit ñi dañ lay lor ci ay wax wala ci ay jëf yow ngay muñ di jéggale di si sant yàlla subhanahu wa di ñaan yàlla loolu mu yokkee la ko yow mu yokkal la ko nga xam ne loolu lu lay yokk la waaye du doon lu lay wàññi du nekk lu lay wàññi loolu bu ci nit ci préparé boppam dafay noppalu mais nag mu fekk ne nekkul ne moom moo sikk tamit mu fa mu bañ a fexe ba lañ koy waxal bañ a nekk lu nekk ci moom ndax léeg-léeg nit ki mën na fekk ne moom moo sikk nit ñi di wax ak sikkam mu war caa mun a jariñoo mu ne déedéet ñoom la ñoom ñoo may lor ñoom ñooy wax seeni wax waaye man li ñuy wax amul fekk ne moom la na nga góorgóorlu ba fexe li ñuy wax bañ a nekk ci yow li ñuy wax bañ nekk ci yow boobaa lu ñu la waxati wala ñu koy jëmale ci yow ci loo xam ne lu baaxul la du la wàññi dara mu bokkaat ci góor gi di wax ba léegi si loo xam ne dafay jariñ nit ki mooy mu xam ne dafa war a maîtriser ay xalaatam loolu ñu bëri ci nit ñi duñ ko duñ ko kii mooy nit ñu bëri ñu bàyyi seen xel mu nekk comme benn sën benn poubelle boo xam ne lu bon lu ne dañ ko fay sànni alors que xel warta nekk loolu xel nit ki da ko war a raxas nit dafa war a raxas xelam ndax sa xel moom mooy contrôler sa dund sa dund yépp ci sa xel lay lay sukkandiku ci xol bi lay sukkandiku ni ngay xalaatee rek noonu ngay dundee léegi bu fekkee maîtriser wuloo say xel ak say xalaat di ci xalaat lu ne ci lu bon loolu dafay indi ay taq takk ci xel mi bu ci indee taq-taq yooyu loolu dafay jeexital ci sa dund moo tax Ibnul Qayyim di wax ne am xel wala ab bi nga xam ne ci ngay xalaatee dafa mel ne gën goo xam ne ki da ciy da ciy dëbb nee booy dëbb sa gën nga yor ko di ci dëbb yi nga xam ne moom ngay soxla nee benn waay jóge fële yore ay ay salte ak ay sobe ñëw bu ko cee sotti nee na da nga koy da nga koy dàq ne ko na ko fi jëlee ndax nee bis boo xoolee ba mu sotti ko ci nga dëbbaale ko loo dëbbati ci gën gi dafay taq loo dëbbati ci gëdd gi rek dafay takk mu loolu mooy xel mi seytaane yu bon yi mu ciy indi di ko ci def ci ay xalaat da ngay fexe di ko dàq ak di xeex ak moom bañ di ko nangu mais boo ko nangoo noonu rek croiser les bras façon xalaat bu ne bu bon bu ne bu ñëwee nga ko ci xalaat dafay dem ba xel mi dafay takk day am problème lu muy produire ci lépp li nga xam ne mooy juddoo ci xel mi di ñëw ci jëf yi dafay am ay takk-takk yoo xam ne moo cay juddoo léegi bu ko defee loolu dafay jeexital ci dund nit ki bokkat na ci liñ ci gën a mën a dimbali ko ba léegi ci dund boobu mooy sant nit bañ koo séntu ci keneen ku dul yàlla lépp loo mën a def ci lu baax na nga séntu yàlla mu sant la ci bu la ci nit ñi santulee bu mu la metti moo xam sa digganteeg sa njaboot la wala moo xam sa digganteeg doomu aadama yi la loo leen mën a defal ci lu mbaax bul am looy séntu ci loolu ci ñoom séentu ci rek ngërëmu yàlla subhanahu wa taala loolu bu ko nit ki defee day noppalu mais leneen loolu boo ko defee doomu aadama yi euh, dañoo gàttañ lu bu fekkee li ngay def ci njëkk ak lu baax di ko séntu ci ñoom ñu delloo la ko chaque chaque jour da ngay am déception ngay am te déception yooyu daf lay indi ay problème sa dund léegi pour nga noppalu da ngay jëfe li gaa yee waxoon ne ma ma nutimu ma nutimukum illa li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura innama nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura gaa yooyu yàlla subhanahu wa taala doon tagg ne ñoom dañuy joxe seen alal daf ne ñoom dañ naan ña jox seen alal naan leen liñ leen di jox dañ leen koy jox rek ngir yàlla séentuwuñ ci yéen lu ngeen ñuy defalaat wala lu ngeen ñuy sant séentuwuñ ko ci yéen li ñuy séentu ci liñ leen di defal mooy ngërëmu yàlla subhanahu wa taala innama nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura amul lenn luñ ci séentu ci yéen nit ki bu fekkee loolu ci la préparé boppam xatta dund gi muy joxe ci këram waa famem di ci dund yëre yi leen di jëndal njëkk bi mu leen di defal mu ci séentu yàlla subhanahu wa taala séentu ci ñoom ñu koy wax naan ko yow defal nga ñu lii wala defaloo ñu lii bu ñu amoon taxawaay boo xam ne sax dafay waroo ak loolu bu mu ko métti na rek séentu li nga xamante ne mooy fayu borom bi subhanahu wa taala naka noonu tamit digganteem ak doomu aadama yi loolu bis bu ko nit ki defee dina noppalu bu baax a baax ci dundam mais bu fekkente ni ngërëmu nit ñi moom ngay sàkku di nga sonn di nga sonn lool di nga def ba sonn te daanaka tam mën naa wax ne la nga cay am du du ko tax am njariñ la nga cay am du ko tax am njariñ góor gi di waxaat ba léegi ne bokk na ci lay jëmbaliwaat ba léegi ngir nga am dund bu dal ak dund bu teey mu ne nga xool yi nga xam ne moo am njariñ ci sa dund nga teg ko ci sa kanam mu mu soxal la mu yitteel la li nga xam ne amul njariñ nga teg ko à fàtte ko li nga xam ne moo am njariñ ci sa dund na loolu nekk ci sa kanam yitteel la li yonent bi waxoon alayhi salatu wasallam ci xadis bi jàll ihris ala ma yanfa'uka na nga yittewoo li nga xam ne moom moo la amal njariñ amal na la njariñ ci sa àdduna amal na njariñ ci sa ci sa diine nga jël loolu yittewoo ko mu nekk sa yitte loo xamante ne amalu la njariñ nga jël ko fàtte ko teg ko à côté ndax nit ki di yittewoo lu amalu la amalul njariñ loolu day yàq sa dund daf lay indil ay problème ba léegi mu ne bokk na ci yi nga xam ne ba léegi daf lay noppal yow jullit bi ci sa dund dimbali la ci sa dund mu ne yi nga xam ne ay jëfi tay la te nga mën koo àggale tey nga bañ koo xaare ëllëg loo xam ne jëfu tay la nga mën koo def tey bul ko xaare ëllëg loo xam ne mën nga see jug léegi def ko jugal nga def ko mu jeex ndax loolu dina la noppal da lay ndax boo jëlee ay mbir yoo xam ne daf daf laa war lépp nga war koo def nga koy xaare bis bu ne ngay def tuuti di bàyyi di ko xaare di dem ba mbir dafay tegaloo ci sa kaw yi nga war a def yépp dafay mujj tegaloo sa kaw dootoo ko mën a taxawee moo tax li ñu tuddee ak taswif baaxul seytaane moom moo la ci dugal naan saw fa saw fa saw fa amaana amaana dinaa def nangam amaana ëllëg amaana dinaa def nangam loo xam ne mën nga ko def tey bul ko taswif bul ko xaare ëllëg nanga nga ko mottali mu mat tey jeex waaleykum salaam bu fekkee mën na jeex àggale ko mu jeex nga raxas ci sa loxo loolu féete boobu nekk liggéey boo xam ne àggale nga ko même bu desee tuuti sax te mu mën a àgg àggale ko bul nee naa xaar ba ëllëg ndax léeg-léeg ay gàllankoor day am ay dog-dog day am bu ko defee soo moytul doo ko mën a àggale leneen ñëw fekk ko fi loolu di fekk sante dafay dem ba jural la ay problème bu ko defee mu déborder la complètement loolu tamit nit ki daf cee war a war a nekk loo xamante ni principe am la mooy dundam lépp loo xam ne mën na ko def daf koy def ci anam bu mu gën a gaawee ak anam bu mu gën a baaxee bu ko defee mu noppalu ci ñaareel bi aussi mooy yi muy def mu koy mu koy toftale lu nga xamante ni moom moo am priorité mu jox ko priorité ci loo xamante ni amul priorité ndax nit waruloo jël sa temps tamit di ko yàq ci lenn di bàyyi loo xamante ni bi moom moo gën a am solo moo gën a soxal loolu benn façon la ci façon yàq temps yi nit ki dina ko def dina ko dal ci moo xam ay liggéeyam yi muy def ci wàllu àdduna dina ko dal tamit ci li muy def ci wàllu jaamu yàlla mooy nit dafa war chaque jour fu mu toll mu xam lan mooy li nekk priorité mu jiital loolu mais dafa nekk ci njumte moo xam ci wàllu liggéeyu àdduna wala moo xam ci jëf sa digganteeg sa borom munoo ràññatle loolu da ngay ñëw di yittewoo jël sa temps yépp def ko ci loo xam ne defoon mbir sàngam moo ko ëppoon njariñ foofu nga bàyyi mbir sàngam boobu yaa ngi koy neenal jamono bi nga xam ne defuloo ko yaa ngi koy neenal di yittewoo loo xamante ne bi loolu mënoon naa xaar loolu nekkul fiq loolu ay problème lay jur ci dund nit ki nit ki dafa war a xam loolu tamit bu baax a baax a baax a baax kon ala kulli xaal ci gàttal pour tënkat euh, li ñu doon waxtaanee léegi mu nekk ay points yoo xamante ni Cheikh Abdourahmane Saadi euh, lañ ci seetlu mu wax ci ay wax yoo xamante ni yu solo la nit ku rek ko parce que jubluwaay bi nga xamante ni moom lay jublu lu ñëpp soxla la lu ñëpp bëgg la moo ñu ku nekk bëgg nga am dund boo xam dund bu dal la am xayaa boo xam ne xayaa saida la dund boo xam ne dund bu texe la euh, léegi kon dina laaj nit ki xam yan jumtuwaay lay jëfandikoo ngir yàlla subhanahu wa baaxe ko mu am mu am euh, dund boobu mu am jubluwaay boobu jumtuwaay yooyu yu bari la ba ca njëkk ci nuñ ko waxee woon sànq tàmbali waxtaan bi mooy gëm yàlla subhanahu wa taala muy al imaanu sadiq ngëm goo xamante ni ngëm gu dëgg la loolu mooy fondement bi mooy base bi mooy li nga xamante nit ki boo ko ñàkkee moom mooy dund boo xam ne dund bu dal la dund boo xam ne dund bu texe la moom ñàkk na ko moo xam fii ci àdduna la wala alaaxira ñàkk na ko ak loo ko mën a séen ci xéewal xamal ne ci mbugal la nekk loo ko mën a séen ci xéewal xamal ne ci mbugal la nekk moo tax euh, léeg-léeg ñenn ñi ni ñuy déggee xadis bi yonente bi alayhi salatu wasallam di wax naan al dunya jannatul mu'min wa sijnul kafir dañ ciy juum mooy yent bi alayhi salatu wax ji muy wax naan àdduna moom mooy prison wu jullit bu gëm yàlla ndax fi la ko yàlla subhanahu wa di natt di ko teg ay métit ak ay naqar yàlla indi ko fi pour muy bànneexu moom dafa xam ne fii dafa ñëw pour yàlla nattu ko ci wàllu jëfam mu rafetal ay jëfam ngir boo légee ñu fay ko fii daaru amal la këru jëf la boo légee alaxira mooy daarul jaza mooy këru fay alors que ñi ñoom xamuñu loolu ñoom dañ yaakaar ni fii mooy seen aljanna lu ñu fi ñàkk rek yaakaar nañ dootuñ ko am léegi léeg-léeg nga gis ñoom ñu fiy dund di fi am ay naqar ay métit yoo xamante ne yu tar la nga ni léegi kon nan la ñuy def ak xadis bi waxoon ne ñoom fi mooy seen aljanna euh, benn waaye boo xamante ni ab yéefar la dafa mës a dajeeg benn borom xam-xam bu mag ne ko seen yonent dafa wax ci seen téere yi te mu nekk ci saxiix muy xadis bu wér boo xam ci saxiix ne seen yonent dafay wax ne àdduna moom mooy suñu aljana ñun yéen mooy seen prison te man maa ngi nii damaa ñàkk aw ma dara naka la fii mën a nekkee sama aljanna loolu kon li ma waroon tekki mooy kon képp ku nekk yéefar da nga war a nekk ci abondance da nga war a nekk ci aljanna boo xamante ni la neex ngay am mais seen ñàkk bu ñàkk dégg xadis bi moo tax ñu foog loolu waa ji na ko yontu bi alayhi salaam li muy wax mooy lu ngeen fi am ci métit ak ci naqar ak ci njàqare boo ngeen ko comparé ak duma yeleen di xaar bu ëllëgee loolu aljanna la fii ci yéen jullit timit lu mu fi am ci ci bànneex ci àdduna ak ci noflaay bu ko comparé ak xéwal bu koy xaar aljanna mbugal la maanaam prison la ci moom loolu la yonente bi alayhi salatu wasallam waa ji na ko déet kaay bul dem ku bëgg a dugg ci diine nu muy def mu wax ko mu daal di tub dugg ci lislaam ndax li mu ko wax lu leer la loolu kon nit ku nekk war na koo xam bu baax bàyyi ko xel mooy ne kon ñoom seen naqar ak métti yi ñu nekk fii nekkul loo xam dañ ciy sukkandiku ngir wax ne kon euh, euh, xadis boobu nekkul loo xamante ni du lu wér la wala déggin bi wérul fekk na nit ki moom mooy jum ci dégginam ci gàttal da ala kulli xaal doomu aadama bi dafay xëccu di sàkku li nga xamante ni moom mooy dund bu tey ak bu dal ñëpp ku nekk bëgg ko ku nekk ak fa nga koy utee ak na koy utee mais am na ay jumtuwaay yoo xamante ni bi moom yu wér la yoo xam bu ci nit ki jaare yàlla mën na ko ko defal ñu tudd ci yenn ci waxtaan bi di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ak góorgóorlu ba ñu mun cee taxaw ngir am résultat boobu nga xamante ni nit ku nekk wax dëgg yàlla bëgg na ko ndax fii bañ fi yàlla wàccee ba léegi ci coono lañ nekk ndax yooyu nga xamante ni bi doomu aadama bi yàlla garantir loon na ko ci aljanna ne ko doo fi xiif doo fi mar doo fi rafle doo fi ñàkk foo dëkk muy ñeenti besoin yooyu nga xamante ni ay mbir yu mënta xaar la ci dund nit ki loolu yàlla moo ñu ko garantir loon ci aljanna léegi nag nit ki na góorgóorlu ba fexe bu ëllëgee yàlla subhanahu wa ta'ala fayaat ko delloo ko ko loolu lañ ci war a góorgóorlu adduna bi moom li ñu fiy def lu yàgg diir la boo xamante ne diir bu gàtt la bu fi nit ñi jógee dañuy wax ne liñ fi def lu néew la liñ fi def lu néew la liñ fi def bu ma bu bu matee bu matee bu matee ab ab bis tamit dinañu jaaxal ñenn ñi ci doomu aadama yi naan matul bis waaye xaaju bis la doomu aadama yi bu ñu dekkee dañuy laajtante seen biir ñenn ñi naan àdduna est-ce fa def mat na bis ñenn ñi ne matul bis xaaju bis la xaaju bis ndax boo comparé taxawaay ba ñuy taxaw ak dund ba ñuy dund ca àllaaxira bis boo xamante ni bii di nga ko taxaw boo ko doon wañ ci àdduna benn bis boo ko doon wàññi ci àdduna mu nekk junniy at junniy at alf sana benn bis boo xam boo ko wàññee fi mu nekk junniy at loolu boo ko dindee ci dundu doomu aadama da nga naan ay ay minute la ay minute la mooy dund bi fi doomu aadama di dund moo tax doomu aadama yi bu ñu faatoo ba dekki li ñuy njëkk a posé wu question mooy ñun àdduna est-ce que jot nañ faa toog dafa mel ne dañoo jaar rek jàll comme xef moo tax dund bi gaaw na gaawaay boo xam nit ki bu mu fi alak boppam bu mu fi yàq boppam na góorgóorlu taxaw ci sabab yi nga xam ne moo koy jural noflaay fii ci àdduna bu ëllëgee tamit bu dekkee mu jural ko noflaay mais dundam bu gàtt bu néew bi bu ko waralee ci moom mu perte dundu ëllëgam mu ñàkk dundu ëllëgam mu texee di bu ëllëgee loolu moom pertaange weesuwu ko moo tax yàlla subhanahu wa ta'ala leen tuddal ne ala inna alxaasirina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama perte dëgg mooy ku perte sa bopp perte sa njaboot bu ëllëgee loolu dëgg-dëgg xaqiqatan mooy ki nga xamante ne bi dafa perte kon loolu moom mooy alxusraan mubiin yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa hada wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin